asalaamaaleykum e wa rahmatullahi taala wa barakaatu dama wax wax yi nga xam ne yéen a siibu Safina TV ñu leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu leen di nuyoo fii ci Scat Urbam Grand Yoff jàpp amoo ak HLM Grand Yoff ci ndaje bu moo xam ne ki ko fi woote moo di ki nga xam ne responsable politique la ci benn Bokk Yaakaar bokk ci parti bi APR euh, bokk ci ñi nga xam ne ñi fas yéene xëccoo li nga xam ne mooy mairie Grand Yoff tey nag mu woote fi benn concept boo xam ne lancé na ko te mooy wax ñu dégg mu ñëw fii tey nag ngir déglu askanu Grand Yoff ngir ñu wax euh, ñu dégg maanaam ku nekk wax li nga xalaat ci ne moo war a jëmale gox bi kanam ci li nga xam ne euh, moom moom la nar a def muy projet am nekkee maire mën koo réaliser incha allah kon nag ñu teew fi kon ci suuf Safina TV incha allah fas yéene jëlal leen booleem loo xam ne nan na fay ruusee ci ay kàddu incha allah ci kanam tuuti danañ ànd ak Cheikh Bakhoum mu wax ñu lan mooy objectif ci daje bi ak lan moo ko motivé ngir mu bëgg laaj mairie bu Grand Yoff kon ba kanam incha maa ngi ànd ak sama caméraman euh, nag Samba Si. Euh, ki ma ko dina arrangé cité bi ñun danañ ci mun d' accord danañ ci mun am mbégte amul dara loo xam ne na kii lu ñu soxal du maanaam euh, affaire cité bi Thierno bu ñu yebalee ñun ñëw ñu fekk fii maanaam imam baakum euh, bokkum astafirlah ñu fekk fii Umar euh, Moodu ñaa ñooñu buñ ñaanee mun nañu wax ñaan na leen cité bi yëpp parce que man mii dama nekk ndey Cheikh léeg-léeg ma dem maanaam Mamadou woon aussi noon la léeg ñu dem julli fale si imaam euh, Yero Ban Hamidou Ban léeg ñëw jullee fii parce que ñoom ñaar ñooy suñu imam kon nag kenn bu ñaanee ñaanal na pour ñëpp ñu on en profite pour dire que euh, ñu ngi nuyoo aussi suñu kilifa suñu serigne Cheikh Niang ñi bu ñëwee ci tout Cheikh Niang mu ngi mel ne parce que imam yëpp euh, serigne yëpp ñëw nañ loolu lañu ñu ci li ñu bëgg wax ci gattal parce que mu ngi commencé guddi njëkkoon nañ ñëw nak 17 h 30 ñu ngi woon fii fekk déjà affaire bi démarré wul. mais Thierno moo ñu wax ne kii goudi goudi il faut ngeen retourner encore pour ngeen xamal ne kii maanaam baaxum li li ñu taxawal ni suñu itte la loolu la ci amont ci gattal li ma bëgg wax. ngeen euh, baal ma àkk nag parce que wax ci mbooloo yombul mais en tout cas euh, point yooyu laa bëggoon souligner ci tur imaam ak ci tur kii maam Madou woon encore une fois plus ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen ñaan léegi li ngeen soxla ni eh, yàlla na yàlla jàppale. kii ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen te di leen balaax ah, ñu ngi sant yàlla ci bi nga xamee ne woote na yàlla dimbale nit ñu woy si ko. waaye nag nañu góor góorgóorlu tey waxante dëgg nañu góorgóorlu tey bëggante waaye wax fii dem euh, làqu waxu leneen am na melokaan yoo xam ne baaxut nañ góorgóorlu bu baax Cheikh ñu ngi lay gërëm euh, xëy na man duma wax ci politique mais dinaa wax ci sa kàddu papa ndax nekku fi tey te sama wóolu la ñoo bokk nekk fi kon li ma déggee ci làmmiñam rek loolu laay man di wax ak sa jëf yi nga xam ne euh, teew na ci sama kanam muy jëf yu rafet na nga gën a góor góorlu bu baax man loolu la lay dénk euh, ndaw nga loo xam ne euh, dangaa dugg ci àddina bees na nga góorgóorlu te xam soppe yi ak ñi nga xam ne ñi ñooy ànd ak yow ci dëgg di déglu it ñi lay wax dëgg tey dugg ci nit ñi ku soxla nit ñi dangay faral di dugg ci nit ñi di ñëw ci nit ñi ñu xàmmee la xam la ah ngeen di leen jëriñ parce nit ñi moom ku leen jëriñ rek ñu yëg la ku leen jëriñ di daanaka dañu xaw a doy waar nañu waxante dëgg ñoom ñi fi nem ñëpp xam nañ ne kenn ku ne ki lay jëriñ doo ko fàtte kon nag gis nañ seen jëriñ waaye dama lay xeer man sa papa laa du la wax loo xam ne leneen lu nekkul la dama bëgg nga gën a góorgóorlu ndax lépp looy wut nga xam ko ndax boo ko amee muy suñ njëriñ nit ki nag soo xamee ne lii njëriñam la ah, li ngeen nekk ci waar wi ngeen nekk di ci liggéey na ngeen ci góorgóorlu bu baax te di ko rafetal bu leen noonuwante bu leen tëkkuwante bu leen xeebante ànd leen ànd dëgg ak ànd ab liggéey bi nga xam ne mu leen si président de la république sonn sant ngeen di ci góorgóorlu bu baax koñ bi nga gën a góor góorgóorlu ci moom Grand Yoff bi nga gën a soxla nga gën a feeñ ci nit ñi gën a feeñ ci nit ñi ndax nit ñi xàmmee la xam la bu ko defee lépp looy laaj boo yónnee sax nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi taxaw ci na góor góorgóorlu bu baax euh, ñu ngi leen di sant te di leen gërëm gis nañ sa njëriñ waaye na nga gën a góorgóorlu bu baax yàlla yàlla yokk la dëgg-dëgg yokk yàlla taxawu leen ndaw la nga xam ne boo góorgóorloo président de la république sax boo ko da nga ko am

dañuy ñëw ci sama quartier maak monsieur lii mi toog ne ko kon sax parole bi nga waxtaan ak mi na dalal imam ñu ngi leen les représentants de imam Ban sunu imam sunu wasila ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax di leen ziar euh, ak waa kër Imaam ñu xam ne ñun suñu dëkkandoo la ñoom ñettam euh, directeur ñu ngi leen di dalal bu baax avec sa délégation bi fii nag euh, ay quartier ñoo bokk la Scat Urbam a ngi fii comment il s'appelle encore Cité Khadim mu ngi fii donc ñun ñu ngi leen di dalal délégation yëpp yi fi ne mais du caa gën amuñu luñu wara mëna a fi mu ni parce que population bi ñun ñoo leen ko gëna jëgé donc ñu leen ko gën xam wax nañ ko légui euh insécurité bi mu ngi ci mu ngi ci dëkk bi en pagaille wax nañ ci waxat ci ak fi ñu yaakaaroon fëggal nañ fa euh, ba tey ñu ngi xaar te di dundee yaakaar ba léegi bi ci tegu mooy o usées yi euh, imam wax na ko léegi def ñuy envoyé ci quartier yëpp di ko dale euh, Fouar ba ba fii donc yooyu mooy li nga xamante moo ñu gën a soxal bi ci tegu mooy monsieur le directeur dañuy wax surtout sur le chômage de jeunes boo leen mënee jàppale nga jàppale leen parce que xale yi am nañ dañu am jot am nañ jot koo xamante ne fu ñu am fu ñu mën a jàppandu tuuti rek di xëy dina baax ci ñun ñun waajur yi parce que ñun ñëpp ñu ngi à la retraite donc bokk na ci nga xam ne ay mébét la yu ñu ñooy diis par rapport ak situation bi nous parce que dafa guddi li ci li ci mën wax daal mooy ñu bàyyi parole bi ak ñeneen parce que wax wax peut-être neex ngeen baal ma ak salaamaaleykum wa rahmatulah. nuyu di gox yi di nuyu kilifa yi fi toog doléance yi nag moom la. doléance yi la c'est l'assainissement, sécurité et amélioration du cadre de vie. Je suis ma moi que président Bahoum a attention l'attention de l'occupation sauvage des trottoirs Nous avons amatuñu fu ñu aw dañuy faufiler ci de oto yi ça c'est pas normal loolu dal moy suñu ité. té nak lima ci ciy moy ñun ay mag lañ duñu neni ganaari ken dañuy gis constater wax li ñu soxla moy une mairie qui prend la gestion des populations Mais on n'a pas besoin de mairie qui prend en gestion les militants alimentaires. On n'en a pas besoin. la mairie topoto Gorhi mais mairie topoto militants alimentaires sincèrement on n'en a pas besoin man indi naa fii adjoint maire bu Marseille sur le contrôle de comment il s'appelle encore indi fi projet yu taxaw ñu tëdd ma indi fi espagnol yi ay projet yu taxaw ñu tëdd ci sincèrement man day mbéri bi mom doyal na ci ñom sëkk sëkk sëkk voilà tout ce que j'avais à dire. jërë Djef, jëf Djef. ngeen jëf bisimilahi rahmaani rahim yi fi teew yëpp man bàjjen Aminata Mbuub maa ngi leen nuyu di leen ziyaar bàjjen Amo Grand Yoff mooy leen nuyu di leen ziyaar di nuyu sunu imam di ko nuyu di ko gërëm di ko ziyaar di nuyu sunu chef de quartier di koy nuyu di ko gërëm di ko di nuyu Cheikh Bakhoum di ko gërëm di ko di nuyu sama natando badjen yi ma andal ñi and di liggéey Grand yof ma ngi nuyu suñu dëkkandoo yi di len sant di len gërëm ci seen téway ñun nak li ñuy wax rek lenn li ñëpp wax rek mom lañuy wax moy changement lañu bëgg Grand yof bu bees tak lañu bëgg te buñ koy am ci Cheikh baxum lañ koy amé inshallah rabbi te inshallah dina am ci katanu yalla ak mbaxu yonenti bu tedd ba ca Medina. léegi nag problème mu amoo Grand Yoff ak suñu gox bii ak suñu cité yi mooy sécurité bu ñu jógee ci sécurité ñu ngi joo xool ci suñu doom yi jeunes yi ku ñu leen jàppaleel ñu liggéey ñu jël di jàppale jigéen ñi jigéen ñi bëgg nañoo liggéey bëgg nañu def formation kon ni ko bàjjeen yi defee kon ni nga ko defee bàjjeen yi numérique yi ñoom it ñu di am euh, formation bokk ci téléphone yi di eh, suñu tali yi tamit bëgg naa nga xoolal ñu ko defaral ñu ko ba mu set ndax fii ñu toog nii tali la waaye doo gis tali suuf rek ngay gis te ku ñu ko tonnil ngay jël suñu koñ yi tamit ku ñu ko pavel ñu jël ñun daal ñu ngi lay sant di la gërëm di la ziar ñoo ngi ca ginnaaw foo ñu woo ñu wuyul te neexee yàlla ak yonti bi bu la 23 yee dinañ la jox maire bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jërë nga jëf yi fi nekk di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp bu ñu paree si kàddu googu di nuyu euh, le DG Cheikh Bahoum maa ngi lay nuyu di lay ziar bu baax di nuyu euh, euh, sama ben tata bi ma fi seen muy tata Koumbaña maa ngi koy nuyu di ko ziar parce que suñu voisine la di nuyu mbolo mi ñep ñu fi tew man maa ngi tudd El Hadji Samba Ndiaye je suis le président du mouvement 3S moy seetal suñu Scat Urbam mën na am na am na ñoo xam ne ne daan nañu gis ci terrain bi ñuy def ay désensablement am na ñoo xam ne na peut-être ne ci réseaux sociaux yi dinañ gis suñu activité parce que tey tur bi ñu tur bi ñuy wuyoo rek ñun ci loolu la ñuy dox mooy escate urbaine lu ñuy jéem a fexe ba setal ko concept boobu ñu am nag dafa nekk benn pôle boo xam ne ne képp ku bëgg a liggéey dëkk de cadre de vie nga ne amoo vision yow yaakaar naa ne sa liggéey da ngay il ba pare mais doo gis dara loo liggéey parce que tay, bu ñu tay, ba l'autre jour bu ñu excellence président Macky Sall ma ngi dégg mu naan dafa bëgg Sénégal mel comme Dubaï wax jooju ñu bëri prêter wuñ ci attention loolu bu ñu ko waxee kon mën nañ cadre de vie il faut ñu jox ko loolu ñun ci lañ nekk di def ay reboisement ak ay désensablement yépp lu jëm ci Scat urbain lii suñu xeex chaque jour ñun mouvement citoyen lañ ay jeunes ñoo si nekk ay étudiants ay xale ñun xaaruñu kenn si lenn peut-être ne ne DG mi euh, xam na bu baax suñu mouvement amagul un an ba ñuy démarrer ñëw na si suñu lancement depuis boobu ba léegi ku xool suñuy activité chaque semaine ñoo ngi activité ba tay lañ ci joggé ku dem côté hôtel décoration def parce que nous dañoo gëm né réew mi ñuko ku ko bëgg liggéey bëgg da ngay xaar kenn ci ñu fekk ci la mais bo naan damay xaar ñu jappalé ma une priorité nax le temps de la jeunesse lañ nekk suñu mam yi suñu mag def

nit ñi xam la ràññee la da ci baax ñu bàyyi protocole yenn saa yi ñuy teg si diggante parce que tey jii bu ma nekkee un leader bëgg a wax ak Cheikh de mënu ma jot si woo wala may may jaar si kenn bu boobaa dama naan ah man kii de moo waroon ñëw si man mais bu may dem si moom may am dara mën naam bu yàggee si boppam dama naan damay dem sama yoon. da loolu un leader à chaque fois danga war a nekk ku wàcc suuf moom xam na suñu parrain colonel Abdoulaye Ndiaye ku ko xamul dégg nga ko maanaam macha allah bu ko neexoon tey lu ko neex mel mais c'est un homme humble boo xam ne ne ñun même bu ñuy liggéey day ñëw da dañuy jàng ci moom parce que c'est un leader boo xam ne ne wutul dara mais référence la kon ñoom ñii tay bu ñuy xëccoo dara bëgg dara dañoo bëgg ñoom it mel noonu ñu bañ maanaam tey ji xool si ndombal tànk yu ñu toog walla yooyu ñu koy yoy bàyyi yooyu yëpp parce que askan bi ku leen yëg. la ñuy yëg de askan bi boo leen ñëwee dajale leen it jox leen ñu lekk mais boo leen yëgul xam nañ ko surtout sénégalais dafa soxla ku koy yëg boo ko joxee mu lekk mais boo ko yëgul it yow yaay perte sa temps rek loolu laa bëggoon ñu bàyyi si xel à chaque fois di ko def deuxièmement Scat Urbam ak li ko wër man du ma ne Scat Urbam amoo man dama naan les vingt six cité la ñuy wax vingt six cités yi nii ku ko xam-xam nga ne la mairie de Grand Yoff mën nañu tey xool tey budget

85% vingt mën nañ la tey jii nii seen côté lay jógee de yeen bu sédé wala dara amé foraas lolu ñun ñoo ko war bañ ñun ñu dëkk ci cité yi ñun ñoo ko war bañ ñoo ko war a jóg xeex benn. deuxièmement euh, luñ soxla mën nañ ne ne bëriwul peut-être né ñun suñ mouvement ci yoy lañ gëna dox ki wax légui né la fi tali la woon bo fi rombé nga melni souf euh, banen maa ngi dégg ñu ñu tonni suuf war ñu xaar sa ñu ñu naan ay euh ñom Cheikh wala ñene ñu ñew tonnil ñu suuf ñun ñoo wara jog jël suñuy pel tonni ko buñ amul fuñ ko décharger wo ku mel Cheikh baaw ne ko boo ñu mënee ben camion ñu yobbu suuf bi ñun ñoo wara nek à l'action avant kon bok ñu tay soxla nañ yu mel nonu soxla nañ wal pavage parce que tay ji ni boy désensablé da amo fo euh, da wutaloo ko solution da ngay dem suuf bi di ñew da ngay dem suuf bi di ñew rek liggéey boobu moom maanaam da ngay mujj sonn rek mais da nga koy bàyyi lépp looy liggéey da nga ciy jéem solution mu nekk acte boo xam ne cité nouvelle yi wala cité yëpp soxla nañ ko deuxièmement wàllu sécurité mën nañ ne ne sax du atu principal si wàllu mairie sax parce que loolu mën nañ ne domaine état la gën a mais it ku si nekk gox ba nga dëkk am nga no xamné peut-être ne ne gis nga ne sa gox ni mën nañ organiser wu dem si ñu wara dem pour au moins ñu am ben comité bo xamné dinañ ko def jéem a suñu koñ parce que jamono jii sa sécurité du ma ne yaa koy jëlal sa bopp de mais yeboo nga farlu ko avant avant ngay woo kaneen mu la koy wut pour ñu bàyyi si xel laneen li may jeexalee euh, euh, euh, de tey mu nekk loo xam ne ne ne tey jii nii ñoo ngi koy wax lépp moom mooy wàllu reboisement war nañ si delluwaat war naa gis ne cadre de vie képp ku ko bëgg di liggéey si gox di nga farataal loolu parce que da cee bokk parce que réchauffement climatique yëpp ñoo ngi koy gis ñuy wax ne ne ñoom di leen ñaan maanaam xamaguma sen projet si wàllu mairie wala tegaluguñ ñu ñom lan lañ ñu liggéey benn mais ñu bolé ko ci surtout wàllu cadre de vie cadre de vie mom ku koy lepp loy politique da defoo ko ci wala nangam da ngay échouer social baxna lool neexna lool mais amna ñu ko soxla amna ñu ko soxlawul mais bo génné defaral tëli bi yaakaar naa bi ñëpp ko soxla bo solé sa bazin ba mu weex nga génn fi mu lay poussiéral je pense que né buñ ko défaré ñepp la soxla kon dama bëgg ngeen bay ci xel bu baax di la di la wax ne ne ne nag bon jeune nga xoolal bu baax sa tànk nga xam foo koy teg def ndànk bañ a yàkkamti et que di jéem a xool ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ ngeen jéem a ànd pour liggéey gox bi salaamaaleykum wa rahmatulah taala. dañuy am ay événement ñun dañoo bokk ci biro bi su ñuy doom di fi jànge say rakk doon jànge fii ci daara bi dañuy am ay événement ay xale mokkal fi alxuraan ñu ne ay autorité ñoo nekk fii si koñ bi te ñun. gisuñu autorité yi ñu jàppale xale yi fi mokkal alxuraan parce que bu ñu mokkalee alxuraan tey ñu leen di jox seeni ijaaza rafetoon na tey dañu war a après dañuy jàng français ñu waroon ñu jàppale leen ci ay ordinateur wala jàppale leen ci yeneen i ndimbal yooyu yëpp amul te daara bi tey rafetoon na ñaari daara yi ñu am euh, ay kii salle d'informatique comme ni ko CM bi amee mais amu fi li ñuy remarqué aussi moom mooy ci quartier bi suñu rakk yi ñi ngi fi jàng am ay diplôme jàng ba pare même estage mënuñu koo am suñu waajur yi suñu yaay yi sonn trop bi ñuy jàng di jóg fajar di gunge xale yi are car bi ndax agression yi tey xale yi jàng nañ ba pare mënuñoo am euh, stage te yooyu yëpp yéen ngeen nekk fi ay autorité war leen mën a jàppale leneen aussi suñu mbedd bale ñu ngi ko gas depuis biñ ko gasee man kese maa nekk di ci xeex ñu ngi ko gas damay fay ay saret pour ñu ciy def euh, gravaille pour ñu am fu ñu jàll ndoxu douche bi di jàll bërki démb rek dañ ñëw taf tafal ñu ko tuuti ñetti kamiyon camion gravay euh, kii arobe lañ ci def sotti ko ndox bi génn mu yàqaat ko vraiment ñun daal li ñuy wax moom mooy nga jàppale ñu ci sécurité koñ bi nga jàppale ñu ci sécurité koñ bi jàppale ñu aussi boo xoolee quartier bi problème mu gaare fu nit ñi gaare dafa am problème man j'ai amené ici au temps de Mamadou mbay limay wax lu leer la man j'ai amené ici des danois jogé na fi Danemark indi fi des danois fi pour à propos du rond point là ñu def ko parking souterrain auto yi mën fi gaare parce que buntu kër go fi dem tay dafa tek ay bidoom kenn du fa gaare da ngay am gan sax du am fu mu gaare aussi financement DER yi suñu wa koñ bi suñu maire yi am ño ñoo ñi ngi def ay poulailler war nañu am ñu jappalé leen ñu am ci financement yi financement yi buñ ko amone dana leen dimbali parce que maire yu ci bari tay paa yi génn nañ àdduna mais wala paa yi retraité nañ ñi ngi am ay activité wala seen i doom amuñu liggéey ñi ngi am ay activité bu ñu leen jàppale woon ci euh, élevage yi ñuy def ay poulet de chair yi loolu aussi dana leen dimbali te DER am na financement bu muy def boo xam ne bii pour la volaille la le ministre de l' élevage man je l'ai entendu te man j'ai parti euh, je suis parti le rencontrer pour affaire euh, DER bii nii mais doo dégg benn jeune Scat Urbam buñ ci financé yooyu yëpp dimbaliwul koñ bi koñ bi nag li ñu la waxoon keroog ci imam Bane soo bëggee def politique da ngay sumbeeku dugg ci koñ bi nit ñi xam la il faut nga sumbeeku dugg ci koñ bi te ndimbal boo fi def wala di jëfi joxe ay nag ay 4 heures du matin kenn gisu ko politique nag boo ko bëggee def loo fiy joxe danga koy joxe mu ne fàng nit ñi gis la da nga war a dem te aussi nit ñi kër yi fii nii bu leen wax ne comme li sawaay wax léegi ne mën nañ seen bopp bu ñuy séddale dara wala kii kenn du leen séddale tey rafet na tey ñu def journée de l'excellence def ko ci rond point mairie bii nga approché toutes les écoles parce que pédagogue yi nga jànge yaag suñuy rakk a fi jàngandoo tey suñuy rakk am nañ ay diplôme ñi ngi fii di liggéey war ngeen dajaloo ngeen def ay journée de l'excellence dem ci au niveau des écoles xool les tableaux d'honneur ñu euh, primer leen fii ci kii bi ci euh, rond point bi fii bis buñ ko fi defoon day tax suñu doom yi gën a góorgóorlu doom suñu doom yu ko gis ku ci nangul woon jàng dana bëgg sa gis sa moroom tey Cheikh Bakhoum moo def journée de l'excellence jël ay ordinateur jox leen sama doom bu nanguwul jàng fekk doomu kii nangu naa jàng dana def effort pour jéem a def redoubler d'effort pour mën a góorgóorlu te yooyu yëpp mosul am fii ci Grand Yoff ci Scat Urbam bii nii mosu fi am ñun mos ah man di mosuma ko fee gis te loolu lu rafet la woon pour nga mën ko fi organiser yaag ñeneen a ñeneen keneen ku mel na man ñii participer ci bu ci ñii mënul joxe ordinateur am na ci ñoo xam ne ñi nañ ci participer seen poche ñu jéema pare parrainer xale yi ñu góorgóorlu ñu jàng parce que tey am na fi ay parents d'élèves yoo xam ne yii tey néew nañ doole lool ñu am xale yu nangoo jàng lool problème mu inscription sax da leen di të wala problème mu jënd fourniture sax daf leen di të war nañ leen distribuer fourniture war nañu tey am nit ñoo xam ne ñii tey même bu doon par personne 10 000 francs ñu dajale ko nga xam ne dañ koy jënd fourniture boo xam ne bii ñu xool parents yooyu ñun ñoo dëkk ñun ñoo xam ñi fi néew doole ci koñ bi parce que da nga dëkk ak nit mu ànd ak suturaam ak ngorom du tàllal loxo kenn du ko xamal dara waaye yow mi dëkk ak moom da ngay xam ne kii loxoom jotul ginnaawam mu am doomam ju nangoo jàng lool sax mais amul ku ko dimbali mu am ngorom di dajale gerte caafam ak ak i nattam ak di góorgóorlu pour doomam jàng yooyu yëpp nag ñun war nañu taxaw taxaw sa ginnaaw ñu góor góorlu ñu jàppalante si pour koñ bi jëm kanam ñun loolu rek moom moo ñu ñor Scat Urbam moo ñu ñor amoo Grand Yoff moo ñu ñor ngeen baal ñu am. merci. sama jeunesse yëpp fii laa ko doxee tey jii su ma jógee taxaw ñi may dul xam ci mbooloo mi du bëri dama yaakaar ni euh, ku ku ma xool ni 30 ans nit ki fu fu ma ko dundee ni kon yàgg naa ci cité bi parce que sama at li ñu ciy 40 ans du bëri amaguma 40 ans kon xam nga ni cité bi xam fi lu bëri. bon ma nekk ndaw nag yàlla def ci man loo xamante ne nii tamit dama yàgg di bëgg di dajale ay nit nekk ak sama ay yaay nekk ak sama ay moroom nekk ak ñoo xamante ni aussi sama ay càmmiñ lañu ñu nekk ñoo xamante ni tamit aussi lépp lu ma mës a yëkkati ci cité bi an ci sama volonté dañ ma ciy jàppale ba ci sama sœur bii muy Aïda Fall ñu dëkk ci cité bi yaakaar naa ni ay Fall boo ànd ak moom yoonu marché sax mi ngi lay wax bu Cheikh Ba ak di la motiver à ce que nga top ci ginnaw Cheikh Bakhoum bu fekkee bëgg nga développement Scat Urbam donc man nak yalla def na en 2020 créé na ben association bu di wax association des couturières té bi may créé association des couturières bobu je n'avais que ben machine ci sama bir salle di fa ñawee ma créé benn association boo xamante ni boot ay jigéen yoo xamante ni ñoo ma ëpp ñoo ma ëpp ñoo ma ëpp moyen ci lépp ci lépp ci lépp mais nekkul mais malgré ça doyloo woon nañ ma topp sama ginnaaw ci lu ma nekkoon rek wax dëgg yàlla ñu ngi ma ci doon jàppale. yàlla def na nag durant ma yore association bi mënuma amoon benn occasion pour gisanteeg Cheikh Bakhoum parfois ñi ma doon boot dañu ma doon wax njéeme yow nan nga def ba politiciens yi nekk ci.

ñuy ngeen ñuy may ñun ñi nekk ci cité bi bu leen ne diw yor na diw même bu dee ñaari nit la ngeen ñu ñuy déglu ñun tamit ñuy mën a toog ak yéen di wax li nu li nu bëgg parce que dama yaakaar ni tollootuñu ci benn génération bokk bi ma yaakaar ni man ci laa bokk toog di yaakaar ci politicien mu may la loo safalee si cin parce que dama yaakaar ni ku ci nekk yaa ngi ak sa kàttan mën nga liggéeyal sa bopp loo xamante ni tey jii mën nga ci suturlu sutur daal ci sa ay waajur ba yàlla lu mu def xam ne loolu la man nag dama am ci point yoo xamante ni nii daf ma xaw a euh, marqué muy côté sécurité man côté sécurité man moo ma xawoon inquiété donc depuis ma nekk Scat Urbam début gisoon nañu autant euh, que insécurité jógoon na fi mais gis nañu léegi insécurité bi dafa bëri ben espace public lañ fi am muy rond point dañ fay taxaw di snap ñu keuf sa téléphone amul sécurité ñu défal ñu fa benn wifi xam nañu xale yi légui dañu accro ci internet cité bi yépp fa lañuy dajé di snap ñuy keuf suñu téléphone parce que dégg nañ ne sax euh, loolu Cheikh Bakhoum moko def mais buñ ñu ci mënon bolé tuuti sécurité tamit dina bax parce que espace public bo xamanteni dama yaakaar ni njabot yi ñëpp ñoo fay dama yaakaar ne tey bu ñu fa defalee loolu bëgg nañ ñu fay daje mais waroon nañ ci ci dolli sécurité de tout de telle sorte que suñu doom yi dinañ fa mën a dem di ñu amee en sécurité parce que oto yi lu leen neex la ñuy tourner foofu noonu te amul sécurité parce que ñi fay ñëw di fa parfois di fa dalloo ñëpp xam nañ ni foofu amul sécurité deuxièmement may wax ci affaire don yi tey ji yàlla bu dogalee ba nga jël maire bi nga dimbali ñu ci don yi niñ koy joxee rafetlu wuñ ko

maa ko gën a soxla ñëpp mais sama jëkkër bu ñuy fekk foofu dafa ma naan ma na soble bi génn kër gi parce que dafa parce que rafetul façon bi nu koy joxee moo rafetul te dama yaakaar ni suñu moroomu jigéen ñi nekk ci cité bi ay gor lañu fii koo fi may fukki dërëm suba boo taseeg moom mu ni ñaari junne nga ko may kon nañu changé méthode bi ñuy joxee don yi mu parce que dafay ñaaw sax nga tasanteeg sa nit wala nga tasanteeg ñun ku ne xam na ni jigéen dafa fonk nawleem ñu ne kii mi ngi renfay di jël juróomi kilo soble dimbali leen ñu ci méthode bi ngeen di joxee don yi nay gëna am sutura parce que ñun ñëpp nekk nañu dans le besoin mais méthode bi ngeen koy joxé moo tax kenn bëggul ma ñëw ci walum éducation ku ci nekk xam ne ni cité bi fii suñu doom yi ku ci bëggul ku ci waxul ni sa doom bëgg na jànge école privée da ngay wax lu la neex mais manque de moyens dañuy jël ay appartement di fay cent cinquante mille mais mënuñu fay école privée ñuy de ñuy ñuy dem ci privé yi di dem ci public yi di déglu directrice yi parfois du ñak juróomi nit ba juroom ben nit yo xamanteni xeyna amuñu inscription ñu leen ci dimbali ñu dimbali ñu ci walu fourniture di dem ci école yi difa bayyi ay fourniture yo xamanteni parfois bo jinde juroomi kay mu dese la ñetti livre nga xamni Cheikh baxum tay bu la yàlla dénkoon maire bi ñu ni Cheikh baxum yóbbu na ci par exemple John Wesley bi sama doomi di jangé ñu ni Cheikh baxum mo leen may livre yi parce que man mi di waxante ak yow samay fourniture ma taxul voilà ñu wax ci affaire solidarité solidarité famille parce que dañuy dajalo ni mais Scat Urbam nous ne sommes pas solidaires xamanté wuñu buñu taxaw fi dajalo ci kanamu Cheikh Bakhoum ku ne def sa tagal tok xamanté wuñu on se connaît pas nañuy jëm di bëggante touti tek ñu bayyi xeebante bi fi ku ci nek yaa ngeeg sa katan yaa ngeeg sa doole xam nga noy def ba génn ci mais politique rek moo ñuy dajale kenn gëmul kenn ñun jigéen kenn ku ci nekk rek ki nga ki nga jeex bokk ak doole moom nga xaritool nañu solidaire parce que bu ñu solidairewul tey ji jàppante Cheikh Bakhoum tey bu ko yàlla dénkoon maire bi tey bu fi doon def 50 ans liggéey bi du feeñ parce que dëkk bi ñi fa dëkk ñoo solidairewul parce que man damay dem ba ay banlieue mais je vois que banlieue moo nu gën a solidaire ñun dañu dëkk ci ay cité ñun ñëpp dañu loué ñi fi dëkk ci seen ay këru bopp bariwul mais ku la ci gën a yëg boppam nga ni lii la. politique boobu nañu bëgg ñëw ñu fii pour ay tàccu ñëw ñu fii pour pour pour di ndagar wale lu ñu soxla rek mooy. ngeen wax ñu ci quartier bu nekk ci gox-goxaan yi li ngeen di dund fii ci loolu nañuy tënk ay programme mun ko jébbal mun jébbal leen ko pour que mun ko indi ay saafara donc Cheikh Bakhoum mu initié woon ko donc pour loolu nag mu daan ñuy woo taataan suñu xam-xam pour que ñu mun ko accompagner ci événement yooyu yëpp gannaaw nag quartier yëpp bokkuñu ay jafe-jafe quartier yëpp bokkuñu ay gis-gisin loolu moo tax ñu tënk ay tënk benn calendrier bi nga xam ne chaque semaine war nañ dem ci benn gox-goxaan dajale fa ay nit toog laaj leen ñoom nan lañu gisee seen dëkkuwaay nan nañ gisee sécurité bii nan nañ gisee nu ñuy dundee ci biir askan wi. donc pour bañ a guddal rek comme ni ma waxee ñun lu ñu fi taxaw jóg moom dalal seen xel wax leen ni ko li ngeen fi wax nekkul da ngeen koy wax rek mu dugg ci nopp bi génn ci nopp bële. am na ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ay borom xam-xam ñi nga xam ne ñu ngi toog ak yéen donc di tënk waxtaan bi yépp si vidéo yi ngeen di jot nii ak li ngeen fi wax ñu koy ñu koy bind di ko tënk si dara donc ma leen di sant di leen gërëm bu baax. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi Seydina Mohamed di sant Serigne Touba Khadim rasul di nuyu mbooleem ku fi tew góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi imaam imaam yi fi teew yëpp ak mbooleem bàjjani gox yi ak mbooleem kilifa yi fi tew nga xam ne bu ñu ci tuddee. Cheikh Bakhoum mel leen tudd nañ ñëpp moom nag wax dëgg yàlla xamuñu ko waaye boo demee jotaay moom kilifa gi mu fekk rek da koy da koy nuyu jox ko wàcc waayam loolu moo gën a rafet di nuyu waa koñ bi yëpp euh, di am mbégte ci invitation bi di wax ne waxtu yi su jotee maanaam mbooleem politiciens yi dañuy jóg di wër ci askan bi di tataan seeni xalaat ak seen bëgg-bëgg ak seen yitte ngir lan ngir la ñuy séntu muy jot ci seen commune wala yu mel noonu mën a yomb ci ci ñoom waaye it comme ni ko ki fi jógee léegi wax maanaam lu mel nii bu amee li ñuy yittewoo mooy kenn ku ci nekk nga wax lay say jafe-jafe ak la nga xam ne bëgg na ku ko saafara bu bu ëllëgee li ngeen bëgg su amee ñu mën cee taxaw ci côté boobu li mu ciy wax mooy ku ne xam na ni Grand Yoff fii ku ne xam na ni amul sécurité sécurité amu fi ndax bërki démb rek ba ngeen seetloo am na ay groupe yi xale yoo xam ne mën nañ 30 personnes dox ci kaw tali bi di agressé nit ñi te ku ne xam na ni ka ci gën mag amul 30 ans kon loolu yaakaar naa ni ah, ci waajur yi la li ci am solo mooy ñu yar xale yi jàngal leen ndax ab yar kat dafa am solo ci ndaw ndax ndaw mooy yor réew ëllëg kon nañu góor lu baax ci yareenu xale yi waaye kenn ku ci nekk boo xëyee yaa ngi jéem a xool noo lijjantee sa bopp maanaam jiital alal ak àdduna ba fàtte njaboot gi te loolu c'est très important parce que éducation de base dafa am solo kon nañu góorgóorlu ci yar xale yi ci jàngal leen ba bu ëllëgee kenn du leen mën a nax ndax xale boo ko yaree yee ko bu ëllëgee mu noppal la waaye boo ko yarul rek màggee sonal la kon yàlla nañu yàlla taxaw ci njaboot gi di waxit ne euh, ku ne xam na ni commune Grand Yoff bi ñi ko bëgg bëri na waaye euh, yaakaar naa ne liggéey bu rëy rëy rëy képp koo xam ne yàlla si borom teg na la fi mi ngi lay xaar ndax ku ne xam na ne comme ni ko soxna si doon waxee léegi jigéen ñi soxla nañu ay financement pour liggéey ku ne xam ne jeunesse bi it soxla nañu ko leen jàppale waaye ku ne xam ne liggéey dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a jafe fii ak fii réew mi toll waaye euh, monsieur Bakhoum comme yaa ngi dégg doléance yi nit ñi wax rek xëy na yow nga bàyyi si xel bu baax a baax waaye xam naa ne it euh, yaa ngi bay sa waar waaye nga dollee góorgóorlu te xam ne yaakaar daa for te nit ñi am nañ yaakaar ci yow bu baax a baax a baax xanaa dina ñaanal suñu borom kàttanal rek dooleel la ba lépp rek suñu borom sottil ko ñun nag ku ne xam na ni euh, politique dañ ci yëngu bu baax a baax ndax ko ku xam sëñ Abbas Mbacké xam ne mooy président CSPV collectif sénégalais pour la sauvegarde et la promotion des valeurs muy kuréel goo xam ne ñu ngi ko sos depuis 2012 ci liggéey Ah, ñun nag joxaguñ loxo kenn ne yow la ñuy àndal wala yow lañuy jàppale waaye képp koo xam ne nii xool nañ sa programme mu doy ñu méngoogu li askan wi bëgg incha allahu rabbi dinañ la jàppale dinañ ànd ak yow ah, foo dugg ñu dugg foo taxaw ñu taxaw fa te nekk du nekk loo xam ne ay wax kese la day ànd ak ay wax ak jëf ku ne xam ne ni jiit nañ fi ay daayira ak yenn ak yenn yoo xam ne jërul leeral waaye maanaam junj dana borom xel ah, ñi ngi rafet lu nag jotaay bi rafetlu wax dëgg yàlla initiative bi am na solo trop ndax wax la dégg dafa nekk lu leer maanaam wax leen seen jafe-jafe ak seen jàmbat ñu dégg ko bu defee ñu mën cee taxaw euh, li may jeexalee nag ngir bañ a guddal muy wax ju am solo joo xam ne dama koy tënk rek bu defee kenn rek bàyyi ci xel waaye nag ñi nga xam ne ni ñooy kilifa yi te bëgg a jiite ñoo moom wax ji muy falu fullawu foogu fonk ñi la faloon faluwaat waaye falu fuuyu fo fàtt ñi la faloon folliku wasalaamaaleykum wa rahmatullah di leen gërëm baax di leen sant di ñaan nag euh, lépp lu ñu fi wax rek mu nekk njëriñ pour askan bi yëpp ak ñun ñëpp nekk fii man nag sama wax du bëri dama koy gàttal rek Cheikh xala nga te loo yootu jot ko incha allah ñu nekk fii si koñ bi nag nga fi def sociale bu baax waaye gën a la yokk sa loxo gën a la yaatal mu gën a jublu ci nga xam ne néew nañ dool ndox koñ bi bëri nañuy néew doole lool comme ni ko sama naataango bi waxee koo fi gis mu sance fekk euh, sax lay wooyee mais lu muy dundee moom rek moo ko xam yaa ngi def social dëgg la mais yokk sa loxo mu am ñu muy jub suba lamintine daf may woo lamintine moo may woo moo tax lu bëri di dugg ci koñ bi mais daanul egsi si ñoom mais ba lamintine duggee di ma woo may mobiliser mi ñëw ci ñoom mu ngi gën a ñëw ci ñoom mais gën a la yaatal gën a la yaatal dangay sol sa daal dugg si nit ñi ndax fii ñu bëri xam nañ la nii mais xamuñu la bu baax te jote ci yow yombul def naa ci édition première édition tante bi Lamine mun na maa seede sa carte invitation ak sa carte d'honneur ma woo Awa sama naataango mu jox ma numéro abuloo ma woo abuloo jot ko mu ne ma nañu daje fii ci boulangerie Marimar Cheikh Bakhoum dina ko jot ma ñëw ba ci sa siège on m'a mal accueilli fii ma ñibbi si wax ko Awa Sarr Awa Sarr jox ma numéro abuloo ma woo abuloo ma teg ci loxoom xaw ma jot nga ko wala jotoo ko mais ba tey egsi woo te ñëwoo te yow laa ko pare na woo te nga dëkk si koñ bi balaa ñuy wàlli feneen yow yaa fi dëkk yow la ñu am boo jéggee tali bi sama kër ngay jàkkaarloo waaye jotoo ko ñëwoo ma jóob bokk maag moom parti de mais daf ma jox 116 ak bâche yàlla rek tax may wax nekku sa jëmm toog te dëgg lañu wax moom nga bind fii te dëgg rek moo ne yàlla gisuma benn membre APR bu dul honorable Aminata Diaw moo ma ñëwul kenn ñëwul te yaa nekkoon panneau donné bi waaye xam naa ne lettre bi egsi si wu ma am lu ma naqar lool heure boo wootee ma ñëw la maram daabu mi mun a maa teel suñu mbooloo nga ne nga yàgg ñëw ñu lay defal fii mbooloo di ko dajale ay mouvement yu bëri di ko indi fii rafetoon na nga teew mais gisuma la waaye amul solo may ñaan nag jàppaleel jigéen ñi koñ bi ak ñëw nañ doole lool torop sax dañoo bëgg ci DER gi financement la ñu bëgg ci DER bi kenn jotul ñii nag jot nañ côté bi waaye côté bii amul kenn ko jot si ndeer bi man de pe jotuma te fii def naa fi vingt cinq ans fii def naa fi vingt cinq ans damaa luye nag waaye def naa fi vingt cinq ans fii amul lu mu fi xamul ku fi bëgg dara danga wax ak man boo waxul ak man ah néew ma doo am de waaye du bëri ndax fii ñëpp ma xam dama wàcc sama bopp xeebu ma kenn xeebu ma kenn ba ba ma gisee sax danga may ñàkkal fayda néewal ma waaye sant yàlla dama oyof foo ma woo ma ñëw ndax yeg nga ñu sago nga ñu faala nga ñu ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant jàppale jigéen ndeer lañ bëgg ak financement sama groupement sopp nabi bi nak amuñu kayit te ma ngi jakkalo yow gëna yalla ak yolante bi teg naa ko sa loxo nga utal ma kayit ba ma utalee kayit rek inshallah lepp dina baax ñu ngi lay gëreum baax di la sant di nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun ñolay dalal malgré ci koñ bi nga dëkk mais ñun ñolay dalal tay bon wax ji nag mun naa bañ a gudd parce que ku ci nekk am nga loo war a wax man suñ ma laajee man lan mooy sama problème sama koñ dama constaté benn affaire boo xamante ne chaque jour mun naa ne mu ngi indi problème sama biir koñ mooy dafa am benn angle ci koñ bi boo xamante ne gars yi dañ fay teg mbalit te loolu ñu rafetlu wuñ ko te tous les jours ñu ngi ciy xeex te ba léegi mënut a deñ taami mi mën na dëggal li may wax dégg nga loolu kuñ ci dimbali ñun ñu jël parce que yenn ko ñi gis naa ñuy teg yoo xamante ne benn 4 mètres carrés la ñu teg ci ay pollu mbalit yoo xamante ne bon gëstuwuma ko xaw ma nu muy demee mais loolu buñ ko amee suñu biir koñ ñun bëgg nañ deuxièmement bi mooy amuñu espace pour suñu doom yi ndoxu taw bi bu ñëwee ak foos bi mooy ànd di wal ci koñ yi bu walee ba pare suñu njaboot yi ñooy dellu di ci foo te loolu tamit bu paree ci ñun ñii lay dellu si waat ndax di nga génnaat yóbbu sa doom mu faju ji wala ak leneen ak leneen li ci nekk deuxième point bi mooy boo xamante ne mooy li femme bi wax sànq wàllum jàng xale yi tamit kuñ ci dimbali ñu jël ndax ñun ñëpp ay njaboot lañ sunu koñ yi am na fa xale yoo xamante ne jàng nañ ba pare mais ñu ngi toog mënuñu liggéey defuñu dara xel yaa ngi fii xalaat yaa ngi fii mais les moyens ne sont pas là loolu aussi dañ koy déplorer aussi bon duñ ne forcément lépp ñu teg ko ci say loxo ndax lépp dañ koy yëkkati teg ko ci loxo borom bi mais yàlla dafa am loo xamante ne dala ko jagleel sa sees bi tey su ma ñëwoon ne la seex may ma ma toog xam naa waa ji dina dal sama kaw sunu borom moo la fi teg am na li tax mu teg la fi nit nag mënul matal lépp yàlla rek a mat mais di nga jéem boo jéemee ñun ñu fekk si lañ ñu ànd ak yow liggéey Scat bam liggéey amoo Grand Yoff ba liñ ci bëgg ñu am ko si deuxième point bi mooy nit ki peut-être ci milieu bi nga nekk ci nga mën a exprimer wu ñun ci millier sport lañ nekk d'ailleurs je suis avec moom coach coach Malick merci coach donc milieu boo xamante ne tey képp ku fi toog rek woo nañ la si amul xale amul mag amul ndaw amul kenn ñëpp ñëpp ñëpp lañu ñu woo am na benn euh, groupe bi nekk fii Escatire bam HLM fii Grand Yoff bi fii rond fii am na benn bu fi nekk am na benn boo xamante ne mu ngi foire d'ailleurs invité nañ la benn boo xamante ne bi foire bi nga ñëw benn jour on est là-bas di lundi au vendredi nga ñëw benn jour benn 30 minutes rek ñu def ak yow benn cardio 30 minutes Cheikh boo ñibbee gisoo sa bopp boo boo boo woo ñu ñun ñu bàyyi li ñuy def man personnellement man maa la invité un jour benn trent minutes nga ñëw xool ci lan la ñuy yëngu fii aussi au niveau du rond aussi am na bi fi nekk mais li ma gën a constaté mooy li femme bi wax sànq insécurité bi bëri na fa da ngay toog di def sa séance seen nit ñu këf téléphone te du ñu këf sa téléphone koo xamee ne même boo ko xamulee mais dina am lu mu la def parce que danga wax ne lii bu doon man te doo ci mën dara noonu lay demee donc mooy insécurité bi. wax ji nag bon li ñu li li fi nekk bëri na mais Cheikh man li gën a li gën li man li ma tax a taxaw fi tey mooy problème mbalit bi sama koñ. man lolo ma fi tax taxaw sport bi yeen comme lima wax yeen ñepp la éviter tout le monde bàyyiwuma kenn mag ñi fi nek ñi am problème tank, ñi am problème digg ño xamantene ne bu ñu dañuy wëlbatiku du nelaw yeen ñepp la wo ñew leen ma anda ak yeen ben 1 mois ku ci gisul sa bop togal sa kër man maa la ko wax. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, monsieur le maire ñongi lay nuyu ñongi nuyu délégation bi nga andal yépp ñoo ngi nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp mais di jéggalu ci heure bii ma ñëw damaa demoon Touba ànd ak ay kilifa mënuma mënuma teel a dëpp yàlla xam ne dama leen a bàyyi ñu ngi noonu di dugg dëkk bi ma wàcc jël taxi ñëw pour fekkee lii sama waa kër yëpp ñu ngi fi maa ngi dégg léegi damaa ñëw rek waaye pour wax ci Cheikh Bakhoum ak ci lii nga ñu wooteel ni teg ko ci koñ bi tey yomb ndax

En tout cas, il essaie de faire la politique autrement que nous savons. Très discret, un grand technocrate, beaucoup de cercle restreint du président Tanal Bobam, nous portons le PSE. département am félicitations rek lay am ñu lay suivre ñu les lay ñaanal mu continuer kon fii ci koñ bi ak li wër Grand Yoff ku xamul man bi ma fi il léegi yàggul trois ans à travers Aïda sama sœur ak Golden Club Raham xam Cheikh Bakhoum Doudou ak waa koñ bi mais li ngay njëkk a remarqué lu xew mu ngi ci biir secteur bi Cheikh Bahum mu ngi ci xaru tabaski yi mu ngi ci nagu korité yi ginaaru korité yi mu ngi ci nagu tamxarit yi mu ngi ci magali yi paasu màggal yi gàmmu yi mu ngi daara yi ak structure yi nekk en tout cas ba ci kër yëpp ci confinement bi ci Covid bi dangay ngay ñëw rek ñu ne la Aïda moo fi teg sachet bi nga fekk gel fekk lu ne kooku bëgg nañu mucc bëgg nañu wér kon jàppale Cheikh Bakhoum mooy jàppale suñu bopp en tout cas fii ci koñ bi ñi nga xam ne ñoo ma fi njëkk fekk naa leen ñu ne duñu APR mais Cheikh baaxum lañuy ñuy local ndax li mu def moo leer loolu mérite la

pour euh, profil la bu nga xamni ni ça ne court pas la rue hein jang na fu mu war a jànge yar na boppam ku xam sen wa keur xamni voilà c'est un garçon de bonne famille légui lay doog min monsieur Bakhoum père mais il est formidable ak sen wa keur yëpp lolou mo nek ci koñ bi yëpp leader bu melni yow lañuy ñaan la ñu yéene suñu bop fi lu yalla def dañuy dem de mais yow su président Macky Sall bëggee jàmm ci secteur bi yow la fiy jiital yow la fiy teg kon damay ñëw ci li ñuy wax li ma dégg léegi rek ñuy wax fii Aïda du ma réerook moom chaque jour mu ngi ñëw fii lan moo fi war a baax parce que xam na ne man am naa expérience politique man maa doon jàppale Moustapha Souran à Thiès pendant deux ans trois ans voyagé moo tax ma aj yooyu su ma taxawaatee ci euh, tee débat wala yi yow ya ma ko jaral kon Aïda moo ma ko jaral wa koñ bi ñoo ma ko jaral li ñi wax ni lepp mu ngi ci sa bir projet ma ngi lay suivre ma ngi lay suivre ci ci ci ci Facebook ma ngi lay suivre à travers euh, waa COJER yi euh ñom mu Aline Badara ñom aida sa gaay yi yëpp fii lépp la ñi wax amo projet bo jël ku nga xamni jitalo ci nit ñi tay la mës gis ngay wote non tey Cheikh dafa ñëw fii te fii la dëkk fii lañ ko xamee fii la ubbee ay yëfam dañuy bëgg a gàttal mais ñun dañuy wax ni ñun ñu ngi ci ginnaawam su toogoon ba mu yàgg mu ne ñu x la président porte sax kooku am na chance parce que Cheikh daf ñuy yàkkale foofu te dañuy dem ku mel ni man en tout cas ndax li nga def ak ñun dafa leer kon wax ji wax ji mooy li ñuy wax fii yëpp mu ngi ci ñun ñëpp ñu jox Cheikh suñu carte kii cuuj kenn du ko laaj ay nen da ngay fexe mu màgg rek lépp a ngi ci biiram kii bu jotee li mu bëgg lu olof di wax kuy raam di la tingoom di la fob bu boo bu màggee taxawee da lay tingoom yow boo boo bu sa ndomba tànk yokkee sa mën-mën yokk sa action sociale day yokk systématiquement loolu kenn werante wu ko ku ku ku ku yaatu xol la ku ku ku laabiir la te li muy def xaaru ci dara lu dul fii la dëkk rek il doit quelque chose à ce secteur loolu la ñuy amal lu ñuy wax li ci des lépp dinañ ko lijjanti dina am ñu nga xam ne xëy na ñu xamul say affaire dinañ ko taxaw di ko wax nii pour rassurer nit ñi mais man lu ci ëpp ay dalaa koy waxal wóor na ma ni mu koy transmettre ndax fii lañu dëkk ci secteur bi xam nañ secteur informel bi xam nañ lu nit ñi soxla damay dugg ci école yi ñu wax li nga leen di waajal ak li nga leen defal ci digitalisation centre Aminata mbay la joggé barki dem fofu la doon woy d'ailleurs di wax leneen ñu may wax affaire bi ñu ne ma ñu wax ma liñ la dig ma naan leen est-ce que gis ngeen ku melni Cheikh baxu ñu wax ma projet bi nga leen yéene loolu nga mën li nekk soxoo yaa ngi ko séddale fii yëpp fii musuma ko musuma ci projet sax duudumaa di que ni am na temps yi nga xam ni wifi bi c'était un peu partout yow loolu nga mën loolu moo nekk sa loxo li nekk sa loxo téye ko yamale woo ko ci say mbokk yamale ñëpp nga ko yamale te mosoo dugg fenn di woote loolu mooy politique autrement boo meloon ne neneen comme ñëpp ñëpp ñëpp kon man tey du ma dagg li ma doon def Touba ñëw fii fexe pour taxaw et man je suis prêt fu ngeen dugg ci yëpp am naa ñu ma àndal dinañ ñëw sa bureau boo ñu may audience ànd ak Aïda ñooñu dinañ la jàppale parce am ngeen ay amicoma bu ngeen gisante di ngeen xamante du façon yow ñëpp la bëgg ñëpp la safo ndax ni nga mel waaw man à la place de ay question ak ni man loolu laa amoon comme contribution may sant ñëpp di gërëm ñëpp yéen ñi ànd ak moom yëpp waa Cogé rek ñëpp ñun lii ñun ngeen ko defal. je def fa ans am sama masse de ñëw ñibbi si waat léegi sur ce fait monsieur Cheikh Bakhoum bi xamante nañu bu baax ñëw na sama kër ñaari yoon jeunes yu may jitt yu may juma ñu yu ma jiital ñoom wax deug yalla dañu am problème emploi dañu am problème emploi benn sant am na groupe euh, bu Cheikh Bakhoum bi moy ñu muy délégué ñew nañ indiñ ma ay lettre pour affaire université pour ma jox leen benn liste jox na leen benn liste amul suivi amul benn réussite ñu demaat ba ci kanam ñu joxat ma beneen beneen euh, mission concernant UCG ma joxaat une liste amul suite Nous demandons encore benen, benen, euh, benen liste ñëwaat mu nekk affaire si je me trompe pas xaw na ci quoi léegi quatrième comme que yooyu loolu yëpp amul suite naa taxawal ben entreprise bo xamante au moins dina xeex l'emploi des jeunes si laa taxawalee sama propre entreprise bu tudd général distribution équipement et service me recruter ci trois personnes sur fonds propres di len fay salaire

ut ay ASP un peu partout place leen biir koñ bi malgré au moins tamit ñaan nañ au moins mom su ba gérer mairie bi au moins côté côté sécurité bi dina wu. en même temps tamit que kilifa yi côté inondation bi à chaque fois taw su amé su sax su sax ñu taw wax sur ça pour ma bañ a guddal xam nga maa ngi koy ñaan point yooyu yëpp ñu souligner au moins mu jàppale ñu si parce que maire yi man moom wax dëgg yàlla dama si débarrassé wu dugal naa fa ñetti yoon trois fois ay lettres yoo xam ne amul sax réponse waxuma la ay suite favorable ou pas réponse sax amuñu ko loolu xam nga rafetul quoi man moo tax ay jugement objectif laa quoi waxum nekkul ay question que ne kii laa faral kii laa faral ñun ku ñu jàppale la ñu xam te ku ñu jàppale incha allah

ah di bëgg nak seex yag na la top yag na la top avant Macky Sall di nek président bobu la la dala top ba légui bima la dalé top mam ci yow yaakar trop nak ma bëgg yaakar bobu mu tas ma bëgg nga lu ci Grand Yoff bu baax baax sang ba tey ñi ngi wax Grand Yoff ci escarre bam ak yoyu man do bëgg nga ñëw ba cité millionnaire gay ma dëkk ñooñu ñëpp xam la ndaxte El Hadj mii foofu la nekkoon Ablaye Ndiaye mii foofu la nekkoon di jàppale sama sœur ay doomam sax doon nañ dem ba nga xamante nii euh, duñ mën a fay sax day wax déedéet bàyyil loolu yàgg na li ma li may wax nii yàgg na ma bëgg nga jàpp ci lool bu baax nga xam ni ëllëg bis buñ la tegee fii ci mairie bi ah nga nekk fi ci ñaari yi dëggu rekk ak jub man ci loolu rek laay woy moo tax poste bu ma nit mën a jox buñ ma mënti jox ci affaire bijoutier amul bijoutier booy wax ni am satu bi tey te xamuñu la wala nga ni bi amul kuy dem ci benn bijoutier te neew newoo bi tey rek wala am satu bi tey ñu ne xamuñu ko amut ci Sénégal Sénégal gépp ba mu daj nag laa la wax koo ni bi tey xam na ma ah loolu nag ma góor góor nga góor góorlu si bu baax nga góor góorlu bu baax ci loolu man daal ci loolu laa lay sante di la gërëm wax dëgg yàlla bëgg naa di ëllëg mairie bii de ngay xëccoo yal na la ko yàlla jox waaw yal na la yàlla lafal cat ah li nga bëgg nag yow yaa ko xam yal na la ko suñu borom defal ma bëgg daal moom wàccee sa bopp bu baax di dugg ci nit ñi di dem ci nit ñi ndaxte nit ñi kat ah nit lu mu mën a am ci nit ñi ci ci nit ñi rek la ko mën a ame li maam Cheikh Ibrahima Fall naan euh, jëf jël jëf jël nit ku nekk lu mu jëf rek lay jël gis nga Balotelli si boo ko dóoree day del si yow kon nag nit ñi boo dee dem si ñoom toujours bu jot tamit ñoom it dañuy ñëw si yow loo bëgg ëllëg dañ la ciy jàppale man mii de waat naa ko ci Rasulullah lépp lu ma doon xëccoo ci bis dinaa si jot ndaxte dama ko ji nit ñi wasalaam. nuyu responsable politique yi nuyu soxna yi nuyu sëñ Cheikh baaxum mi di sunu doom di suñu jarbaat teg ci di sunu kilifa ngir cër bi ko yàlla jox. nu nangul ko ko ci yaram ak tegginam ndax di nuyu sama sang bi sëñ Absat Abbas Mbakke maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu sëñ Seex ñu ngi lay nuyu doomu aadama des na ko booleek alalam duma boole koog darajaam duma waaye desu ko booleeg yaram ak tegginam duma te xam nañ ci yow yar ak teggin te téere yi dañuy wax ne allah dem xam la kulli sey ñun ñoo ko yar yàgg nañoo moom yàggut soxna Ayda mii Fall di sama jarbaat yaayam di sama jigéen yàgguñu waaye nag 94 ba tey noo ngi yéen la. seex 98 maa ngi waajuram ñaari waajuram ba tey makkaan mii ñu dëkk man mii maa ko tabax maa yaayam. yar boobu laa xam ci moom muy jàng école nekk xale bu ndaw ba tey loolu laa xam ci moom li ngay wut yaa ko xam yàlla na ko yàlla jox euh, nit nag am na lu ñu wax waxal naa la ko ca référendum ba yaag soxna Aïda mii waxaat la ko ci présidentielle yi ci daara ji fii yorunu garam place daara la ñu yor fii ci mbedd bi la ñuy toog ku nu yëg xam nan ko ku nu xeeb xam nan ko waaye nag dox boo gis ci kër la yeewoo seex bu la yàlla joxee li ngay wut am na lu ñu ittewoo fii nun liggéey la ñu xam jaamu yàlla jàng xasida ak alxuraan abunu sàccunu fenunu yàgg nañ fi nag nu fi waaye def nañ fi vingt-quatre ans fii ci daara ji fii la daara ji nekkoon ba yàlla def fi école bi ñëw fi ñu dandu fii ci suufu garab gi loolu yàgg nañ fi Ablaye Ndiaye mii am naa ko bu baax a baax dem naa de ñoom ba tey sama buntu kër lay jaar école Mor Fall xam naa ko kon yàlla na yàlla dooli la jàmm waxal naa la fii nii la boo demee ci président nee ko sécurité sociale santé es yooyu soxla nañ ko ginnaaw CFA Cheikh bàyyi loolu xel am nañ ci yow yaakaar dañuy wax nag daam lu wax nag ci wàllu Grand Yoff mais à part président yow mën ngaa nekk sax président réew barke yonent bi am nañ ci yow yaakaar trop ndax yar bi ak teggin bi ak yëg Cheikh Tidiane si nag dafa waxan ni yàlla du ku ñuy manal dara waaye sañ bëgg na ko yëg léeg-léeg nga cokkaas ko Il y gees nga ni ko jee pardon kon yëg-yëg bi la gaa yi sant nu sant la ko ñëpp sant la ko doxal ndax koo yëg sama bàyyi nee na sàcc rek a bëggul ku ko yëg keneen ku ko moy bëgg na ku ko yëg te koo yëg mu yëg la sëñ Abbas nee na ku falu bul fàtte li la fal fuuyoo koy walal mbaa fàtte waaye ku falu te fuuyoo fàttewoo ko fal du boobu buñ la bëggee fali du sotti ndax ka falay tax ki tax nga tax li nga doon nag dangay tax mu tax ba kër ngay toj tax waaye boo tojul tax yaa fi ne mënunoo wax nak waye xam nañu Grand Yoff lew Makka de Gasel daru salam Tayba de Tayba de Tayba to xal yàlla min nañ ko juddoowuñu fi waye fa lañu yaro ca babu ndaw batay tey fi kon amna luñ fi xam ca babu ndaw ku fi yor maire bi fi ci gëna yof man na leen di diwoo ko jëlé ci diw diw jëlee ko ci diw diw jëlee ko mouvement jeunesse socialiste yi nekkoon ci foyer des jeunes bi ca laa bokkoon wax naa la ko fii Pape Babacar Mbaye moo fi nekkoon Khalifa Sall jël ko yóbbu ko assemblée assemblée mu retourné ñu def ko ministre la jeunesse kon am na lu ma xam ñoom baroo fi nekkoon ak Malick Ba gannaaw baroo ak Malick Ba xam naa leen juddoo ma fi waaye yaroo faa nag am naa fi cër wallaahi asim ay jigéen dañ ma ne boo bëggeen maire bi jot janguma nak waye liñ tax ñu ne janguma janguma tuba bi waye nak alxuraan ji mom am na ci xam te aduna àdduna ko mokkal doom aadama deesu ko mokkal téere yi ko mokkal waaye nak sañes nako jang ci li nga fekke demb ak fi nga tollu tay ak fi nga jëm cheikh fi nga jëm démb la woon bàyyi ko xel xam fi nga tollu japp nga jëm suba alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dans le cadre moy lu sukuli suñu gox bi c'est-à-dire les nouvelles cités Cheikh Bakhoum amoon audience at mom waxtan nañ jox nañ ko suñu doléance c'est-à-dire euh, moy problème insécurité diko wax problème do doodaan ba mu souligner cadre bi légui deux jours après ma tok ben entrepreneur woma ma ma yow la Demba Camara ma ne ko wa mu ne ma Cheikh Bakhoum moo ñu mettre en rapport mu àndal équipe am ñu ñëw ñu jël ñu tracer do doodaani ñu wara défer fini parce que bo xolé do doodaani agresseur yi mom lañ mom lañ ñuy utiliser bu moto yi.

entrepreneur yi ñëw tracé la kii doo daan kooku tey bu la diggee suba dara di nga ko gëm waxtaan nañ tamit si côté cadre de vie mooy euh, mooy HLM Grand Yoff boo xoolee rebord boobu noonu VDN bi pour ñu mën a jéem a xool terrain bu nekk foofu noonu at euh, salle de musculation yi affaire yooyu yëpp parce que boo xoolee benn vue la benn vue bi traversé foofu la te loolu day bokk si identité Grand Yoff loolu tam bëgg nañ ñu aménager ko defar ko de telle sorte que nit ñi gis seen bopp di wax tamit ci cadre éducation éducation santé ñun loolu c'est ñuy suñu problème grand fini. insécurité éducation à santé parce que maa ngi dégg chaque jour chaque instant ki ñëw taxaw naan problème emploi des jeunes mais emploi des jeunes Macky Sall sax mi ngi ciy jéem a dox ay tànk mais lolo pour projet à l'avenir la mais pour l'instant dañu xool ñun suñu gox lu ñu ko mën a defaree lu ñu ko mën a suñu gox lu ko ba ñëpp gis seen bopp te gëm naa ni concept bi wax leen ñu dëgg dina gën a mën a gaaw a accélérer affaire yi ak Cheikh Bakhoum maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm aouzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw bu ñu rafetloo assistance bi ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp di wax aujourd'hui moi je suis un enseignant chercheur dëkk fi si Grand Yoff euh, plus précisément amoo Grand Yoff donc à travers lu ñu fi wax yëpp je pense que on peut résumer social mais social bi si aujourd'hui Sénégal nous avons les mêmes problèmes partout parce que ñi fi wax ñëpp dañuy wax di wax di répéter problème assainissement problème éducation d'emblée Ce wax gox ñu donc à travers Grand Yoff aujourd'hui nous, à travers des pour des raisons de service nekkuñu fi woon mais nous ñu Cheikh Bakhoum mu un intellectuel de fi ci Grand Yoff donc nekk un homme très humble à travers euh, réception de ñuy au niveau de l'ADE, nous pouvons espérer de lui un Grand Yoff nouveau inshallah. et fi may terminer mooy euh, Grand Yoff yëpp lay wax daal au niveau S4, tous les quartiers réunis Arafat Grand Yoff yëpp nañu taxaw dem vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de préparer les élections et de prendre les cartes et d'élire Cheikh Bahoum pour un grave nouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. di ziar ñëpp di sant bu baax ndax wote ñu wuysal dafay neex lool kon nak euh, wa Scat Urbam chapeau bas ndax di ñëwoon euh, du mën ne waaye nee na na gisee nit ñi ni xamna ni kon Cheikh Bakh mi nga xam suñu sunu la si ñun la bok ñuy nuyu yaayam ji nga xam mo tok muy Adja Soxna Fay nga xam ne ci dara macha allah ñu ngay lay nuyu di la beral ndax yaa ñu jural sunu koo xam ne ni camarade boo xam ne ni macha allah ku baax ku am ittee ku fonk doomu aadama ku bëgg a kóllëreem ku bëgg ko tax si moom ak ku jox nit cëram bu mat sëkk ma ànd ak waa Scat Urbam nag ñu ñëw fas yéene jàppale ko nag ci li ñuy jëkk dëngbal muy loo xam ne nii wax dëgg yàlla loxo yëpp lañ ci soxla muy jeunesse bi ak femmes yi troisième âge ak ba si premier âge comme ni ko naa si doon waxee léegi ñëpp la ñu soxla ndax dañu dem localité boo xam ne nii métti na méttiwul te bu ñu farluwul rek am na amaana li ñu soxla woon macha allah yàlla dina def li gën sax nag. may nuyu nag uh, sama doom day toog fii yëpp ñoom Adama Touré Khadilo su ma limee damay juum ñoom loota ñëpp ñu ngi fii. sama doom jooju aussi El Hadj Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax nekk si Scat Urbam nit liggéey liggéey bu mucc ayib def ma seen marraine. lu ñuy yëngatu rek maa ngi ci biir ànd ak ñoom di liggéey liggéey bu rafet di mucc ayib Scat Urbam nag suñu problème ñëpp wax nañ ko mooy insécurité bi te yaakaar naa ni ko toog ñi jël micro bi ñëpp wax nañ ko monsieur le futur maire de Grand Yoff bés bu la yàlla joxee nga ñëw war doon na ñu lay installé ci maire bi su boobaa j'espère que ni doléance yi ñu wax fii yëpp di nga ko matale incha allah yàlla nag moo mën a matale waaye di nga sa def sa ndax kii rey ginaar di la may benn pooj ba su reyee nag dina jox ndawal ba nga doyal kon nag macha allah sunu kii nga xam ne ni ku ànd ak moom dangay bàkku rek nag ndax doo dem en avant de en avant rek ngay dem doo dem en arrière Cheikh baax mi yàlla na yàlla yombalal liggéey bi te yàlla yombalal la teeñ bi incha allah ba échéance ñu jëm yàlla may la si ndam lu kawe suñu njot ndax yaa la fierté de Grand Yoff le Messi de Grand Yoff notre fierté te incha allah bëggoon nañu ànd ak yow nag ba palais de la république su ma nee ndax soxlaatuñ sax mairie Grand palais bi lañ soxla tey yàlla mën na ko ndax mi ngi fi te am na ko mën na ko jàng baa ngi fi lépp mi ngi fi compétence bi ak yar bi lépp mi ngi fi waxaguñu nag troisième mandat mais mën na ne te dina ne incha allah maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax guddi na jërëjëf. mais ci nuyoo bi maa ngi am une pensée ci li kiy wax rek sunu sœur bu fi waroon toog tey te nekku fii muy euh, Marie-Louise Diouf kon defe naa ne ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal du ñaanu mbooloo mais xol yaa ngi ñaanal te ku julli yaa ngi koy ñaanal. parce que mënuñu ko fàtte tey bu APR taxawee fii tey moom bokk na ci ñi ko fi taxawal kon yelno na ko aljana yërëm ko te jégal ko yaa Seyda maa ngi jël nuyu plateforme ëttu ñi di ko ci sa loxo ak ñoom Khadilo euh, Adama Touré ak euh, Ndey Ndiaye yéen ñi toog noonu ñoom Awa Sarr ñu ngi fi ñeneen ñëpp ñu ngi fi mënuma leen lim ñoom Ami Collé madame Dramé je crois que ngi fi mënuma lim

yow bañ la xamee ba léegi Cheikh Bakhoum lañ la xamee te nee nañu politique constance daf caa baax nag ñu xame la kenn waaye bu teyee nga def mel ni tourbillon yaa ngi ci Cheikh yow la ñuy gis ca yow la ñuy gis ci kee kooku mënuñ la amoo benn crédibilité doo ko am te yow am nga loolu yow ak rakki ma leen di remercier ci loolu en tant que jigéen parce que en général dañuy wax naan jigéen ñi de moom dañoo ngarale yéen ngaralewu leen loolu ma di ci kontaan di ci fier ci wax ko bu loolu may sama sœur Fatoumata di Cheikh Ndiaye Ablay, tonton tonton ngi leen parce que merci beaucoup ci bi ak merci euh, ci organisation bi ak nous euh, Moussa et xam nañ leen gis nañ euh, Cheikh merci beaucoup Qui li nga ñu permettre fekkee ndaje bi parce que ndaje bi c'est une bonne approche loo xamné la euh xeyna on dit mieux vaut tard que jamais mais ni nga ko défé ni de mo ñu gënal ñun parce que meeting di nga def sa alal def sa kattan def sa doole def sa yëpp te mëna am do mëna nat natt say nit doo wax ak nit ñi li nga bëgg wax ak ñom do mëna a nit ñi li ñuy wax mais fi ñu toog nii tey yaa ngi jàkkaarloog askan bi ñu ngi wax yaa dégg yaa ngi bind ñun tam ñu ngi bind lo faté dañ la koy fatali té xamna ñu do faté dara parce que yag nañu and aussi xamnañu aussi ni nga euh Grand yof nak mo nek ni moy que ni doléance ci bari nañu pourquoi parce que dañu nek fo xamné ne melting pot la ku nek fi dajé te bu ñëpp dajé rek dina am lo xamné ne dina soxé li soxé nak mom la askan bi génné tay ci seen xol wax ko mais waskat ibam rek ño wax fi de

donc euh, fallait que ñoom ñëpp ñu inscrire leen xëy na mënuñu woon ñëw di bindu comprendre ñu mais ku ci nekk am na loo xam ne yaa ngi koy liggéey maintenant waa cité Sonatel ñoom nee ñu yow xam nga sa Salim xam nga diggante boobu sama kër ni fa mécanicien yi mel donc foofu aussi euh, man tout le temps man la ñuy woo ñii man la ñuy woo mooy woo maire yi suñu amee moom des fois day ñëw ak jëkkëram suñu làmp yi fii tàkkul man ma woote su amul suivi ma jóg demal sama bopp ba ñu ñëw ba mujj defar ko xam nga léeg-léeg daal day bëri ay problème néna chômage bi aussi fofu xalé yi pour ci luñu japp lool nga ma yobante won badjen waxal na la ko yoon yi aussi ñu ngi gas gas nañ fofu yëpp auto yi dañuy devier di crois que ku fa jaar ni xam xawma dañuy pavé xawma luñuy def mais en tout cas c'est pas facile pour accéder te fofu c' très facile d'y accéder euh ma di la xamal né nak dañoo tek ñun plateforme bu tuddu eutu jigen ni néna ñu ndaw ñi am nañu plateforme ñun nag jigéen ñi dañoo bëgg tey bokk ndey ak baay génne lépp loo xam ne moo nekkoon loo xam ne ay wax yu sew ak lu nekk parce que suñu bëggee am ndam il faut ñu bàyyi pàcc pàcc bi ci Grand Yoff il faut que ñu ànd mais ñun de jigéen ñi ñun commencé nañ ko bëgg bokk ndey ak baay bëgg xam ne lii du dara politique la te képp koo àndal ci politique buy dem bu jeexee du la bokk yóbbaale la fi la lay bàyyi ak say dëkkandoo kon man sama dëkkandoo voisin immédiat moo ma gënal politique fuuf barke Seydina Muhammad parce que am na loo xam ne dara jaru ko ci àdduna ku woote na ko sa morom dem wuy ji ku dëbb ñu soo ku sóob ñu dëbbale ko parce que ànd politique billaahi nit mën na cee jóg am ci tiyaaba bu bari parce que social bi ñu ciy def déjà rek dafa neex xamante bi ñu ciy xamante dafa neex

lu xew sama famille tey ay magam ñooy jóg taxaw ñoo fay taxaw ñun dañu féete ginnaaw rek kura toog sama mag la moo ñu yar kon man ak moom dañu nekk loon ay mbokk avant ñu yegg ci politique kon téyewuma ko politique mais politique dafa ñëw dolleeku si te am na noo xam ne bu ñu ko téye woon rek ñu toog ñooy suñuy càmmiñ nag ñu di leen gën a ñaaxaat rek di leen dënkaat suñu bopp wan leen ne ñooy seen jigéen ñu ngi si yéen ànd ak yéen te comme li ma wax rek ma ne man dama nekk candidature mairie Grand Yoff bind ne bàyyi leen jigéen ñi xel dañoo war a bàyyi jigéen ñi xel parce que jigéen ñi nag ñoo xam li ci kër yi ñoo xam li ci robine yi ñoo xam li ci marché ba mais comme yàlla def na ba yow yaa ngi bàyyi jigéen ñi xel ba lu am nga ne ñëw leen yéen jigéen ñi wax dëgg yàlla loolu mënuñ ci leneen lu dul di la wuysi rek te ñu ngi fi taxaw boo ñu wooyee dinañ la wuyu ñoo ngi lay sant di la gërëm ci lépp loo ñuy defal nag parce que nit ki nag du ne amuma du ne mosuma xaw ma ni ñu koy waxee ci olof mais yow loo def rek mosal nga ñu ci kon ñun tamit dañuy amu ngoru foo ñu woo dañ lay wuyu am fulat fulaak fayda ba nga xam ne ku ñu téyewul rek amuñu ak yow affaire ñong lay merci beaucoup. donc euh, sama téway fi lenn la c'est parce que ma sœur Aïda qui est une grande sœur à moi une militante très engagée dans le parti au niveau de Grand Yoff et au niveau de l'institut des jeunes que je dirige au niveau communal et au niveau départemental lolo tax je ma parce que lepp lo xamantene ñun ñu ngi koy sumb moom ak ñom abulo ñëpp tous les jeunes du parti qui habitent la sikap irbam dañuy ñëw taxaw sama ganaw jappalé ma jappalé le parti raison pour laquelle j'étais au Kinfat au niveau du séminaire de GIR mais j'ai tout fait pour être là parce que sama jigen la kon bu woté bés bu melni nii bu avec toute cette forte mobilisation dina fi ñëw féké ak ñom Pa Moussa de féliciter le DG chez Baron pour cette initiative, tant plus que nous savions tous que nous allons vers des élections très spécifiques, très particulières. Donc il faut que nous donnions la parole à la population, que la population puisse nous décliner le tant plus que Grand de 96 à aujourd'hui nous xam nañ Grand la et que population bi ce changement et que ce changement il n'y a que la famille du président de la République la famille républicaine, la famille de Benoît Bokeyakar qui incarne ce changement. Et Inch'Allah, au soir du 23 janvier, dina am ci Grand Yoff donc je vous remercie ñëpp ci yi merci wassalam. je félicite nuyu De féliciter les nga au niveau de la skatubam je félicite féliciter notre camarade et frère M. le DG Cheikh Bahoum et ses collaborateurs ici présents di gërëm ñi fi ñëw ñëpp je pense que sama waxi tey mooy sama waxi démb li ma waxoon fële ci jida moom laay waxaat fii je pense que il est temps aujourd'hui que la communauté grand yoffoise se réveille pour xàccandoo dóorandoo ñu changer grand yoff parce qu'il est temps grand yoff moo njëkk judd commune yu bëri mais tay bo fi duggee xol xar kanamam da ngay xamné commune bi avancé wul bougé wul reculé wul donc pour cela il faudra qu'un homme comme TG Cheikh Bahoum ki nga xamné il a les capacités il a les partenariats à travers le monde ñu joxo au moins mu changer la commune je pense que sànq maire yi wax nañ ko tay bo démé vers Yavou Selim c'est partout dans Grand Yoff rien ne bouge Le bëri de donc il faut un homme compétent à la hauteur de la mairie de Grand Yoff Grand Yoff ne mérite pas ça je pense que avec ça la jeunesse Inch'Allah la jeunesse de Grand Yoff je veux dire vous soutiendra jusqu'au bout jusqu'à la victoire au soir du 24 22 janvier merci cher Bahoum xam nga ku lim moom da ngay juum moo tax euh, nit moom lim dafa dul baax di nuyu tamit toute la jeunesse qui est là COJER de Grand Yoff COJER départemental tamit tous les jeunes de Cheikh Bakhoum di nuyu tamit ñiy toog sama ginnaaw ñëpp sama jigéen Nancy si maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu bu baax Cheikh yaay le directeur général Cheikh Bakhoum Abdoulaye ak sunu kilifa yi fi toog tamit kilifa diine yi kilifa aada yi tey su ma fi ñëwee naa si wax na ko sànq nee na nit ki la yëg rek moo la sonal te yëg yëg rek moo koy fay benn euh, le directeur général de l'ADIE Cheikh Bakhoum ñoo bokk coalition Benno Bokk Yaakaar ñu bokk génération am le même âge nekk ci seen politique bi di politique comme li sama chamiñ wax légui à mon jeune âge may am 28 ans la créé parti politique jóge France ñibbi si jàng sob lool créé parti awuma benn mbokk bi politique man maa ko bëgg am amour bi parce que bama ma France di jàng à l'âge de 19 ans Abdoulaye Wade l'a doon jàppale. ba ma ma créé parti en 2011 may jàppale le président Macky Sall gëm le président Macky Sall lool nak di allié di def tant soit peu lu ñu mën pour rek vulgariser politique tay Cheikh suma wowe woowee su matin invité ma dama bëgg nga ñëw ci atelier bi dama koy rafetlu bu baax parce que ñun ñëpp suñu nekké ci même coalition ñu ne Macky le président Macky Sall mo ñu taxaw jóg fokk na dañu wara a di dóorandoo ba paré mu ñëw indi ben concept wax leen ñu dégg fokk na Bakary Sànq le statisticien wax nako amna lu mu si jot expliquer donc de la wax ni toutes mes félicitations parce que il y a pas meilleur concept que celui-ci le président Macky Sall mon, ba muy jël réew de dafa Sénégal FEP, wër village avec village wër département wër commune wër fépp sax ça. ba Europe foog naa ni tour de France looloo tax mu ne sénégalais yi ba may ñëw campagne daf leen indil le programme yoonu yokkute te si loolu la ñu adhéré ñu fal ko mu yëg donc tey euh, Cheikh Bakhoum soo ñëwee indi ce même concept loolu mooy askan bi moo la ñor parce que wax leen ñu dégg tey da ñëw indi benn cadre d'échange waxtaan ak ñoom sottanteeg ñoom xalaat suñu sottantee xalaat. parce que fay toutes les sensibilités étaient réunies Des naa fi bijoutier bi dégg si euh, les sportifs des naa si waa marché des dégg nañ troisième âge beeg ñëpp dégg nañ leen ma gis ni tey ñi fi ëpp ce sont les femmes et la jeunesse te xam nañu bu baax que électorat femme ak jeunesse mooy tax nit donc tey suñ fi toogee nga créer ce concept des cadre d'échange bi kon dara ñorul la que la coalition l'emporte au 23 janvier Bien bi comme li non si wax ba wax bëgg jël seen loxo dama bëgg commune mais dafa fekk coalition Quand lu may wax chaque jour politicien bu amul ambition dem parce que képp kuy politique da nga ambition mais ambition démesurée

wax naa ko sànq soo yëgul woon duma fi ñëw damay toog tukki nekk bitim réew sax bu Faye woo ma ne ma yaa moom lii duma nekk Sénégal sax ñu ne ma yaa moom lii kon kooku kooku ku lay yëg moo la koy def coalition bi ñu nekk nag dafa metti lool jafe na lool xam nga dañuy wax naan ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te tamit nag euh, suñu nekkee si coalition mu bari wax bëri ciow ko limay wax chaque fois suñu coalition ñun ñoy perdre lo suñu bop pourquoi parce que y a beaucoup de divergence wax ji bëri na mais tay suma ma dégloo ñëpp ñi wax fi dégg na éducation santé sociale dégg lu nekk sécurité bi moom foog na ne mo fi ñëpp man Grand Yoff traditionnel la dëkk cité millionnaire la juddoo màggee yàgg jàngooy fa mais tay képp ku leen wax ni coalition euh, commune de Grand soo ko joxul la coalition Benno Bokk Yaakaar mu jébal ko Macky Sall waxu leen lu dëgg lii nii ñëpp wax doléance yi pour mu mat dañuy fal ki nga xam ni moo bokk soit si l'alliance pour la république wala moo bokk si coalition Benno Bokk Yaakaar pour président mën na jàppale du ma ne président jàppalewul maire bi de mais président tey su jógoon pour indi lu muy def pour maire bi da koy bloqué pourquoi parce que du ko arrangé dañ naan état moo ko def donc man day damay wax waa cité nouvelle ñu fi toog ñëpp Cheikh de seen doom la nawloo ngeen ko ñun tamit nawloo nañ ko lool. di koy wax nag sànq dégg naa ñu su bëri ñuy wax te xam nga nit sooy wax ak nit wax ko dëgg dafa neex Cheikh ni nga def ba invité ma man je t'invite à inviter les autres membres alliés de la coalition ñun ñëpp ñu ànd nekk benn say parce que mbooloo mooy doole benn lam du yëngu foog naa ni fukki lam mooy yëngu donc man day yëg bi nga ma yëg moo tax ma bàyyi sama lépp ñoo toog fii ci say kanamu nawle say kanamu waajur

xëy na da ngay bàyyi nit mu dem ñeneen ñëw motali te loolu yéene nañ ko bu baax la coalition benn Bokk Yaakaar Cheikh Bakhoum di la gërëm di la sant di gërëm bu baax Abdoulaye Ndiaye Cheikh Ndiaye Nancy ak toute la coalition ici présente jërëjëf. gannaaw bu ñu mosloo ci seytaane sant yàlla julli ci yonantem bu tedd bi alayhi salaatu wa di nuyu suñu kilifa yi. njëkk imam yi fi jóge toftal ci délégué de quartier yi ak notable yi nga xamante ne ñoo dagg seeni yitte pour partager avec nous sur un concept wax leen ñu dégg di nuyu ñi nga xamante ne ñëpp ñoo nekk ci présidium bi moo tax lim ñàkk mëte ba mais dafay nekk ci xol parce que ku sañoon rek képp koo xam nga jaar ci turam te loolu am na solo ci ndaje yi ñu mel waaye dañuy laaxaale ñëpp nuyu ñëpp ca gën ji teddi nuyoo sant leen ba fa sant yem parce que nit nga woote ñu wuy si la am na solo kaddu gi ñuy yëkkati en terme résumé mooy lii cim démarche ak méthodologie bépp structure bi ñuy taxawee mun nga am ci ñoom yaakaar boo jàngee fa nga war a jàngee ba yegg fa nga war a yegg nas programme warut laa të Parce que tous les éléments statistiques sont disponibles. donc nous avons des compétences, nous compétences un nous ko nañu un programme Nous du gën ci ay méthode du gën ci ñi nga faire de la politique c'est s'occuper du destin de l'autre Bonne tu es l'esclave des autres tu t'occupes du destin des autres il n'est pas normal nga c'est ni préoccupation donc tu liñ fi dégg méngoo na bu baax ak li nga xamante ne ñun façon def politique moom le condensé buñ ci jógee ci semaine mon moy nek li Grand Yoff gis ci ay jafé. jafe da ngay gis képp ku wax rek na solution donc processus de mise en œuvre non seulement da ngeen les contraintes lourdes da les priorités mais vous les avez également accompagnées de propositions de solutions donc lolu dañ koy santé yàlla bu baax a baax a baax euh, di ñaan di félicité parce que ñii ñoo aye tey boo tuddee Aïda tudd soxna Kumba Ñaa suxnu euh, tudd suñu bajanu gox loota ah vraiment mun nga yóbbaale félicitation ak l'ensemble de la jeunesse des HLM Grand Yoff Scat Urbam et des autres cités lii nag dañuy nuyuwaale suñu yaay parce que yaayu Cheikh suma yaay la mu xam suma famille bu baax yàgg nañooy bëgg lii yàlla def na sax il arrivera le moment opportun pour parler de lui moo tax man dama ne tekk rek di noppi parce que dafa am fu ñu tënku nañ ko bëgg a doxale ci ay anam ci ak suñuy nawle benno bokk yaakaar rek step by step ba jot bés ba au grand soir et le rendez-vous n'est pas trop loin ñu wër ko jëmal proposer ko au grand fois c'est un leader de type nouveau compétent jeune imbu de valeur nit ñi wax nañ ko fii quand la main droite donne, celle de la gauche ne la sent même pas. te kooku ñep mun nañ ko cédé. am ambition pour une commune ñu japp né Yalla defna. Buñu ko ñu and autour d'une équipe compétente de Benno Bokk et de la famille de la l'APR je pense que war nañu mëna transformer cette commune

Euh, dans le cadre parce que politique ñett la rek boo ciy engagé wu boo xamul ñetti phase yooyu doo gaaw a jóge fi nga nekk benn bi c'est se faire connaître ñu bëri wax nañ ko sénégalais du fal ku mu xamul laajal ñay toog Be France wala États-Unis Be élection présidentielle jot nga jóge foofu ñëw fii ay zéro virgule ngay ñibbi waale waate

quelqu'un l'a dit tout à l'heure un euh, jeune de mouvement ku ciy xeex ci martaba yi politique intérêt général nak yombut même les choix de l'intérêt général sont difficiles donc nous avons ci intérêt général si tant est que cet homme fait partie de notre famille mais ne travaille pas pour l'intérêt de la communauté dañ ko war a ne tegee fee jël koo xamante ne il pourra travailler dans le sens de la transformation n'est-ce pas du vécu et des conditions des populations et loolu Grand Yoff dafa jot 96 la ñëpp wax nañ ko menum période la PDS ñëw fi lañ ca gis ci bradage du domaine foncier sinon c'est une seule équipe qui a gouverné Grand Yoff pendant très longtemps Grand aspire à être mieux gouverné. Grand aspire au renouveau. Les populations aspirent au bonheur. Avec cette équipe de Benno Bokiyaka, Amnani Yakarné, population yi Kodefsen, Djihadou Bopou, TEC, une équipe qui est là coachée par le jeune frère Cheikh Bakhoum nous suivons à travers un contrat de confiance et de et et de compétence. ba nga xamante ne bu ñu fa deful autour ou au terme de notre mandat li nga xamante ne amoon nañ ko ko ñun nit ki kenn mënu ko jënd kenn ñii fii fii kenn luweewu leen donc bu boobaa rek ñu jëlaat seen responsabilité maa ngi leen di sant leen gërëm wa politique yi fi nekk yëpp identité remarquable yi les jeunes ak ñi nga xam ne dañu ñëw wàll si jotaay bi liñ ci gis mooy segment population bi yëpp ñu ngi fi. et loolu échantillon bu baax la euh, euh, naa si maa lay ziar Kumba Fatmata Cheikh Philippe Lamine Ousmane Formose et les autres morts, yéen ñëpp maa leen joué waa Cogère Adama maa leen di ziar Soxna Mbare maa leen di ziar yéen ñëpp euh, man bu ma leen gisee sama xel dafay dal parce que APR c'est une grande famille

dañu ne lii nan la mun a amee mais dañu xamul ne au-delà de la politique nous lii liés par des choses yoo xam ne kenn mënu ko nettali mais yàlla mooy def heure bu nekk rek la jot la war gën rek mu def ko Cheikh Bakhoum bi xanaa nit bu ngeen demee ba bokk sëriñ doon taalibe moo gën a fort politique de loolu moo ma dal ci moom muy suma rakk muy ku am sutura Cheikh wax na ko sànq ku am sutura la dafa am benn image boo xam ne dinaa ko wax léegi bokkul sax ci jotaay bi jour bi ma njëkkee tase ak waajuram bu góor mu dëgg may làkk séeréer mu jàpp gémmiñ bi dama lay séeréer refo <laughs> maanaam ndax séeréer la ma ne ko mu ne ma laa yow yow ndeke yow mbokk nga te xam naa ne effectivement noonu la deme mais tout ce ceci du digression mais jotaay bi moo ko laaj parce que dañ leen ne wax leen ñu ñu dégg autrement dit ci beneen langue mun mënoon nuñ ko tuddee team building dégg nuñ leen leen gars yi jël leen note mais lolu aussi dafa am leneen lu muy tekki mooy yéen ni yéen ñii responsabilisation responsabilité ak détermination da leen war a commencer animer à partir de tey léegi yéen il faut ngeen jël yi en charge il faut que population jël yi en charge wax ngeen fi question éducation wax ngeen question environnement ou question santé ou question sécurité Lolo, mairie avec les population yi ensemble Nous avons sera le prochain maire de la commune de grand donc la nous Nous nous pratiquement donc Grand est malade Grand est malade en nous avons érigé Grand en commune d'arrondissement maintenant c'est une commune de plein exercice il faut que la stratégie change il faut que l'organisation le dispositif organisationnel change mais également il faudrait que l'approche change Lorsque nous avons dit que nous ay intelligence amener un background bu taxaw et une volonté pour réussir Et je crois que l'équipe bi mettre en place les compétences qui sont soxla yëpp donc les gens qui dal des naa fi ay identité remarquable de valeur ils seront tous mis à contribution pour faire avancer les choses donc gars yi faut que nous l'union sacrée autour de l'essentiel et cet essentiel-là, c'est que nous sommes autour du candidat proposé par le président de la République. Et Inch'Allah, nous allons gagner ces élections sans problème. Je vous remercie. di gërëm sama baay bi nga xam ne ma nga suufu Touba muy Cheikh Mbaxane Fall di doom ci Yëlle Manel di doom ci Lamp Fall kon man bokk naa fi war a bokk maa ngi sant bu baax di leen gërëm di gërëm samay dëkkandoo ndax nit amul ku dul dëkkandoom di gërëm ki nga xam ne ne nag moo waral lii muy kenn ci man ndax defe naa ne dëkkandoo day sonal nit moo tax ma am xër-xër ci moom ndax xam nga lan muy yaram ak teyam buy waxanteeg yow sax booy xëtt xët sax buy waxanteeg yow di nga mujjee tey kon nag mère Soxna Faye nga xam ne ne mooy sama lépp koñ bi ba mu daj su ma amee lu ma metti ci mère Soxna Faye laay dem dama lay gërëm at Babacar Baaxu ndax ñooy sama papa fii jooyu ma baay di gërëm sama frère bii nag toog ndax Cheikh Ndiaye dafa wax léegi

nekk ndaw dëkk ak yéen heure bu ne ma dugg ci lu ma dem dem dem su ma ñëwee ngeen toog ànd ak dal ñu ànd nag ci constance ànd di liggéey topp suñu directeur général wii di DG muy Cheikh Bakhoum may gërëm nag sama papa muy lii nga xam ne ne chef de quartier la ma dem ca këram ànd ak suñu équipe ñëpp ñu ngi toog ñoom Moussa Ndiaye rakk si Kumba ñaa Marème Daabo muy toog ñu ànd les jumeaux Seyni at ma xujëk Cheikh Tidiane Loum Ibrahima Danso at Moussa Sow Thio at Abulo nga xam ne ne lépp moo yor film bi di ñu filme ñu ànd kër paal yi ñu toog mu dalal ñu ci suba teel lañ fa dem paal yi yeewu woo ko mu daal di toog ndax kan jëmm ji toog muy Cheikh Bakhoum kon paal yi maa ngi lay gërëm ci toog bi nga toog ndax newoon nga ma dinaa toog ba mu jeex yow yaa ma ko wax ñu jóge fa Nous dem ci ki nga Ndiaye papa Idrissa Ndiaye moy chef de quartier amo Grand Yoff biñ fa démé tam mu dalal nous nous ñu ay ndaw yi nga xamné né dom ji président ci association bi ñu à une heure du matin tok di waxanté ak ñom kon Nous ñun xar nañ suñu nous ci Grand Yoff nous nañ fep waaw Cheikh na sa xel dal ci urbain, la nga dëkk mais na ñun duñu daw ginnaw amuñu luñu ragal awma dara dara dara lu may ragal man tituma dara man yalla moma ma def noonu ndax sam papa dama ko daan boole xalé mune ne ma ayda lo mënul fajj buma boole ci laa bàyyee boole Cheikh musuma la boole musuma ñew ci yow boole la Cheikh may and ak yow nak di liggéey ak yow musuma daw musuma day, taanaasi dafa wax léegi wax ju am solo ma koy gërëm ndax wax sa baaxu morom du wàññi dara sa mbaax te mooy suñu yaay ci cordination bi bu ñu amee dara këram la ñuy lekk jee la ñuy naan day toog rek jékki saay invité ñu wooñu ñu ñëpp ñu lekk naan di gërëm Ousmane Ndiaye nag muy suñu coordinateur COGER di gërëm Antoine coordinateur COGER Antoine mi ñoo doon ànd depuis 2012 di liggéey ak këram ñuy nekk sama kër sama biir néeg lépp ci Cheikh Bakhoum sama néeg dama ko ubbi ba nga xam ne sama yaay buntu néeg bi ca néeg ba ca bunt ba la ma jox ba ma ñëwee daf ma ne néeg bi ngay toog ndax ma nekk ci football bi nekk ci fédération ba 2019 ñu dàq ma ci loolu yëpp ma ànd ak Cheikh Bakhoum ndax lan parrainage moo tax ñu dàq ma woo ma réunion ñetti yoon ñëwu ma man damay ne Cheikh dafa dem ba màkk ma woo ko ne ko dañuy parrainé ndax damaa ñëw ajaaratu mère Loulou mi génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm mu gaañu ma fekk ko fii muy parrainé mi ne ma ay de commencé nañ parrainé ma ne ko ah DG dafa dem Màkka foog ñu xaar suñu njiit mi ne ma bu leen xaar bi ma woowee Cheikh Bakhoum bindee ko WhatsApp daf ma ne commencé leen kon Cheikh man gàcce dama pare na ba dugg hôpital Cheikh bañaluma la dara mobilisation bu ñëwee du sama fit bi danaan tëf sama yaay ne ma maa jur man aw aj awasaar fii loo fi woote ci Cheikh Bakhoum mi ne ma kaar bi dina fees dell sama yaay mi mooy sama sëriñ mooy sama gàllaaj man duma tiit duma ragal di gërëm nag sama famille tey dañoo toog ma ne leen dañuy togg ceebu jën ndax gars yi dañuy ñëw midi laa leen convoqué dañuy añ ceebu jën Penda Mbaye lañ togg ñu añ ba suur naan suñu boisson ma ne leen lépp dina baax ci bark sëñ Fallou man sëñ Fallou rek laa yaakaar du ma bàyyee sama waajur muy aj awasaar mi toog man sëñ Fallou rek laa yaakaar Cheikh na sa xel dal fi ci Scat Urbam kon nak ñu tambali nak ci liggéey bi kon nak gaay yi loolu rek c'était juste une parenthèse ma wax leen fuma jaar at fuma bok ci askan wi gér gu set wicc la kon nak Cheikh na sa xel dal ma ñew nak di remercier wa coordination Cheikh baxum ndax jigen la ku wote damay dem jàppale la servir la defal lepp mais ñom ñep dañoo xey fajar ku si ne di ma woo ñoom ñëpp tuddee ma la généreuse nama générale ndax man ku ñëw toog di organiser dama lay jàppale ndax jëmm bi toog man du ma toog man bëgguma toog nit ñi di def nii di def nii man damay organiser ba organiser ki nga xam ne moo aye man noonu laa mel kon nag gars yi may remercier suñu imam bi nga xam ne ne mooy imam ñaa la xam ne ne moo ñu tette ci alxuraan bi ma ñëwee waxtaan ak moom mu ne ma dinaa yebal délégation muy imam ba bokkum mii dëkk ak ñun te dara ñaawul di remercier mënoori di remercier Omar Ñang ñom ñep ñew nañ imam Ban, tamit amuñu imam ban dafa ñu dem ba kërëm une forte délégation lepp ci koñ bi la xewé Cheikh uti ben nit ñun fi lañu dëkk kër yi dem di gërëm sama grand place bay may tok muy golden damay tok nek ak ay 40 garçons di ak ñom bu gudd Sidi ci dara di débattre ak ñom ci politique ci économique ci sama yaay nag di ma bàyyi wóolu ma waaw léegi nag ñu ñëw nag waa Scat Urbam il faut nag ñu wax leen li nga xam ne ne moo ñu tax a yëkkati ñu ànd kook suñu DG ànd kook suñu collaborateurs yi toog muy suñu mag suñu lépp mooy wax leen ñu dégg kon nag loolu yéen a ñëpp dama bëgg nag ñu xar suñuy tubéy xar suñuy tànk nuy dugg ci koñ yi waxtaan ak ñoom Cheikh nag ne fii lay tàmbalee ba mu tàmbalee jëdd ba pare mi ne Scat Urbam fii mu dëkk jànge fi am fi licence ba ñu nommé ko muy directeur général de l'ADIE bokk CCR bokkoon COJER tukki barki démb ànd président de la république kon seen xel na dal bu ma kenn laajte ndax Cheikh la ñuy jiital ou pas kii jiital nañ ko ba pare. kon nag nañu ñëw ci liggéey bi ñun jigéen ñi ñoo mën a defar ñoo mën a yàq may ñaaxaat famille xam nga famille il faut ñu constance xam nga mooy lan. il faut li nga xamné né buñu bu ñu ak njiit dañ koy gungé ba mu yegg mais duñu ñu di dem gauche di dem droite man meluma nonu ma tax dama deggu duma and ak ñu bari man dama nakari deret sama yaay bi ma xam buma jur xam nako parce que nitu deug la luma la ragal la wax tok fay joy parce que dans la vie il faut ngay am ñu mel ni Cheikh Bakhoum sa wet man duma la jay ndax lepp ma defal fekk nga ko fi lepp ma defal sama baye defalon namako en tant que directeur général kon kooku moo la jiitu si directeur général lépp loo ma defal sama yaay fonction publique mi ngi nekkoon ci building primature fa la retraité sama yaay daf ñoo yiir ci lekkool ñuy jàng ba am suñu bac am suñu lijaa sax ñun duñu ko tuuti taxawaaluñu léegi nag ndaw yi les votant yi dëkk ci koñ bi nga xam ne nag ba may dugg ci yéen ànd ak abuloo mii ñuy dem ak Moussa Ndiaye ak ñëpp dañoo dugg dem jëli di nga xam ne ne amuñu carte d'identité ñu utal leen wan leen yoon muy waa hôpital américain bi ñu fay toog muy Baye Fall yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm à travers Amadou Bakhoum muy rakk Cheikh Bakhoum léegi nag ñu ngi gërëm loota ndax loota sama magu bopp la loota man dama koy gërëm ndax dafa yàgg APR yàgg sonn loota dawul tësul gesuwul ndax kan APR ñëw and ak rakam bi muy Cheikh Bakhoum def une forte mobilisation L'autre, maa ngi lay sante di la gërëm ñooru woma de mënoon nga ma def dara mënoon nga ma nono mais amun maa ngi lay gërëm di la sante yow l'autre, di gërëm d'ay ami mbub yaay cheikh yi maa ngi leen di gërëm kulim lim nak mais tay dañuy gërëm ndax ñëpp tok ken bougé wul kon nak dañ na wax leen ñu dégg gars yi maa ngi di leen ñaax au soir du 23 janvier

mooy jàmbaaru DG Cheikh Bakhoum Aïda liggéeykat la Aïda fajar muy taw guddi yëpp yaa ngi si liggéey bi te foo toll na ma loota loota loota demoo benn yoon bàyyi ma dañuy ñaan nag DG Cheikh Bakhoum mii yàlla ñu ku nekk ci turam ak santam di remercier ñi ñu fi fekk ñëpp di tàmbale nuyoo bi ci suñu ay waajur ñu ngi leen di gërëm bu baax ci teewaay bi di nuyu suñu yaay di nuyu suñu tànt yi fi nekk di nuyu kilifa yi nekk fii yëpp di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu également responsable politique yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier di leen féliciter si seen taxawaay tey nag dañu woote ci waxtaan ci Scat Urbam de Khadim Amo Grand Yoff waxtaan ak population bi ci lii nga xamante ne moom mooy mbëbëtu Grand Yoff ñu tuddee ko wax leen ñu dégg tey nag dégg nañ parce que kilifa yi wax nañu jigéen ñi wax nañu jeunes yi wax nañu bijoutier yi wax nañu sportif yi wax nañu étudiants yi wax nañu chômeurs yi wax nañu ouvrier yi wax nañu

Évoquons-nous problème d'évacuation évacuation des eaux sujets. pavage des rues assainissement occupation sauvage des trottoirs gestion de l'insalubrité reboisement à espaces verts création de parkings organisation des espaces de collecte d'ordures installation anarchique des mécaniciens également benen pàcc bi cadre sécuritaire bi problème insécurité bi problème également am na fi wax ñu mettre des comités de sécurité de proximité benen pàcc bi moy emploi nit ñi le problème du chômage des jeunes mais également le financement des projets des jeunes et des femmes, le traitement égalitaire des offres d'emploi, l'insertion des jeunes diplômés et la facilitation de l'accès au premier stage L'Olou Nekne a ay point et évoqué également Amna Ben patch solo bu fi nous wàllu éducation bi évoqué fi équipement ou également nous nous sommes accompagner les élèves pour les encourager Nous avons participé à la participer remise des diplômes au niveau des DARA, l'organisation de journées d'excellence dans les écoles la promotion et le parrainage des meilleurs élèves dans la commune appuyer les parents d'élèves en kit fourniture scolaire également je pàcc bu mujj sociale qui soutient les enfants pour l'accès au financement notamment avec des instruments humanitaires. aider les groupements de femmes en général et prendre en charge la scolarité des enfants pour les familles démunies donc ci tënk loolu moom moo juddu ci waxtaan bi donc foog naa ne population Scat Urbam comprendre nañ bu baax concept bi ñu teg muy wax lañu dégg te lii ngeen fi def dinañu jàppale bu baax ci nii ñu bëgg a yoree Grand Yoff parce que ni ko Cheikh Ndiaye waxee sànq jamono dafa toll foo xamante ne lépp dañu koy tabaxandoo ak ñii nga xamante ne ñoom la ñu ko moom mooy la co-construction loolu moo tax ñu indi concept bi parce que nit ñi boo leen bëggee indil politique publique te waxtaanoo ak ñoom ci njëlbeen nga boo tëjoo sa biir bind sa programme di nga def ay programme yu bari yoo xamante ne méngoowul ak jafe-jafe askan wi loolu moom moo waral ñi def li ni mel pour mën a tënk nag suñu programme programme bo xamantene mom moy mooy suqali Grand Yoff moom changer définitivement le visage de cette commune parce que lolu mom moy suñu yéene en tant que fils de la commune mënuñu gis Grand Yoff nekk commune bu gëna tardé au niveau de Dakar de 19 communes te tey duñu xar suñu tànk pour lolu mëna changer lolu nak lii moy tambali bi te yeen ñaa ngeen ñu ci jàppale donc ñu ngi remercier population bi yépp vraiment ci nit ñu wuyoo mën ñu jàppale ci ay idées tax ñu mën a jël en charge définitivement les préoccupations de Grand encore une fois situation bi fu ñu ko natt rek dépassé na fofu. problème yi ñu fi évoqué au niveau de Grand mais clairement il est temps que nous ayons une équipe municipale sérieuse une équipe municipale digne de ce nom qui pourra non seulement répertorier les problèmes au moins mais également nous nekk une oreille attentive pour la population de Grand tey mairie ba boo fa demee am sa problème dina jafe sax ñu déglu la waxatuma la ñu régler sa problème parce que dispositif d'accueil bi sax amul foofu donc loolu mu nekk lo xamante il faudrait que dans trois mois loolu yépp changé ñu mën a dugg ci beneen ère ère wu modernité ère boo xamante Grand yof dina mën a gis leneen lu bees pour mën a changer situation ndaw ñi parce que problème du chômage nit problème majeur pour suñu pour Afrique pour bi coronavirus bu nous dugg Nous gis nañ ne nous. yi pour nous insérer difficile Le président de la République sax un programme inédit pour recruter plus de 65 000 jeunes mais nous avons xam nañu que parce que ni arrivé dans le monde de l'emploi dañoo bari bari way ko xamantene tay euh, marché bi mënu ko absorber donc il est important au niveau de dry off, ñu mën am un dispositif de proximité bo xamantene dina mën non seulement recevoir la jeunesse mën leen orienter mën leen dugal ci ay formation yoo xamantene ne dinañ ci mën a jëlee ay débouchés parce qu'il y en a beaucoup mais malheureusement la jeunesse une information donc il est important que le dispositif pour pour orienter la jeunesse Nous plus de possibilités que nous avons créées. c'est important le premier dispositif qu'on va mettre c'est vraiment cette maison de la jeunesse qui va orienter la jeunesse jusqu'à son insertion pour nous en charge cette Bob.

on doit pouvoir aider les populations qui en ont besoin. Et je pense que si l'homme la gérer la commune de Kayof, il vraiment dynamique sous l'éclairage de nos aînés bien sûr donc nous ngi très prochainement pour vous présenter notre programme qui va transformer radicalement la commune de Et plus particulièrement les nouvelles cités et la cité de Skatubam à mon cité Khadim. Donc ñu ngi vraiment ci seen teewaay Pour la bëggoon yemale kàddu gi vraiment bëgguma lim parce que bu est dans mon juum donc na ngeen ma jégal ci loolu waaye nag dinaa remercier rek euh, comité d'organisation vraiment nous ngi di féliciter donc à travers euh, RFAL donc remercier tout le groupe qui a mobilisé depuis ce matin pour vraiment faire cette organisation et donc je tenais à vous féliciter vraiment pour tout ce que vous faites dans le quartier et vraiment apport qui a pour la population d'Escate pour vraiment permettre que les conditions puissent changer donc nous avons juste un petit message en français pour la presse euh, tout d'abord nous tenons à remercier l'ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk qui ont bien voulu faire le déplacement dans cet atelier que nous avons organisé au niveau de la SCAT euh, à et Cité Khadim pour échanger avec la population dans ce concept que nous avons appelé Warlen Nutegu. Donc cette démarche est une démarche participative de la coalition Beno Bokyaka qui a été initiée depuis le début du mois d'octobre pour échanger avec les populations et pour construire euh, ce programme euh, transformationnel de la commune de Grand -Yoff. Et nous euh, tenons à avoir cet engagement euh, vis-à-vis des populations. Ce contrat de ma nature débute aujourd'hui avec euh, toutes ces idées que nous avons reçues de la part de ces populations qui nous permettront de prendre en charge de manière euh, efficace les vraies problématiques, les vraies priorités de la commune de Grand Yoff. Donc nous tenons à remercier toute la population de la SCACUBAM qui a été bien représentés et l'ensemble des couches des populations étaient là. Nous avons échangé avec les enseignants, nous avons échangé avec le monde sportif et culturel, nous avons échangé avec les Badjanougor, les délégués de quartier, et vraiment l'ensemble des couches des populations. Et cela nous a permis euh, de recueillir vraiment les problématiques euh, de la zone. Et nous donnons rendez-vous à cette population

dengen ngeen ko moom aussi euh, nee na prendre nañ ko en compte kon euh, xam kon li ci kanam rawuli gat incha allah kon ñu ngi leen di jox di daje beneen yoon incha allah jërë jëf ci suivre bi ak merci